لم يكن ولد له أو والد يا قد زلزوا من لم يكن ولد له أو والد يا جملة قد زلزوا بدلالهم يا جملة قد زلزوا Yaqub.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 tey nag ñu am mbégte bu baax ci biir mbégte ndax euh, li ko waral mooy tey jataay bi sëñ Tuubaa rekk ko moom sëñ Tuubaa moom jataay bi kenn amu ci benn benn benn benn benn benn benn benn kenn amu ko ci sëñ Tuubaa bi moom lépp ndaxte yitte ji tax ñu di ko def tey jii yitte sëñ Tuubaa la woon te yaakaar naa ne murit du seetaan yitte sëñ Tuubaa di laaxan ndax kat dafa am lu ko tax a jóg loolu lum doon mooy xasida te ku ne xam na ne ku wax murit rek tudd xasida yaakaar naa ko wax sëñ Tuubaa xasida yi moo ko wutaleeg ñëpp ndax moo doon liggéey bi ko eh, sunu borom santoon ne ko defal ko sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu indi ñu indi fi nag tey macha allah gan ñoo xam ne tabaarakallaa bu ñu leen toppee dinañ ci am ay firnde yu leer nañ ñi dañ leen nuyoolee ak gan ñi ba noppi ñu daal di dugg nag ci biir émission bi incha allahu rabbul alamin ginnaaw bu ñu nuyoo Cheikh Mamadou taxa ziyaara ko ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax li mu dëgmal te mooy bés bi nga xam ne daf ne nañ leen ci jàng xasaayiti sëñ Tuubaa yi dafa xam ne ah moo doon moo doon doonoon rëbbukaay bi sëñtubaay yoroon di ci rëbbee jamono nag bu tolloo fii kon faw war nañoo dem jilaat ngannaay yooya ndax am na lu ñu soxla ña nga jëm ca màggal ga ñu ubbee nag muharram bi di di bés bi njëkk ci at mi ñu tuur ko leeru xasida nag dàq moom jëme ca jëme ca jëme ca jeexitalu at ma ku xam lu muy def la yàlla na fi yàgg te wér bu ko defee buñ ko ziyaare ñi nga xam ne ñooy ay ay njabootu boppam waaye ñooñu buñ ko waxee mën nañ ca mën nañ caa eh, tudd kenn rek muy Serigne Sidi mi nga xam ne mooy jëwrinam waaye nag ñuy siyaare ki nga xam ne moo jub borom màggal gi muy Cheikh eh, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ñu ngi koy siyaare bu baax ginnaaw ñooñu nag ñuy siyaare ñëpp di siyaare jëwriñ Alxaaji Mbacke Faye di ko ñaanal bu baax suñu borom gën koo eh, jàppale bu baax waaye ci doole Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom lay xëer di ko gontal waaye ñu présenté leen sunu gan ñi nag daal di dugg ci waxtaan wi a ah, xam naa dañuy tàmbalee ci sëñ Ablaye Diop Bichri ku nekk xam na ko ci lëggéeyal sëñ Touba ku nekk xam na ko ci waar wi tey jii bi daayira Ahmadou Mouhniyane jógee yaakaar naa Ahmadou Mouhniyane la ñu ndax sëñ mun Mountakha moo ko tuddee loolu nee na nangu na ne tuddee na ko Ahmadou Mouhniyane Ahmadou bu buñ ko tuddee day mel ni tournit ngay woote waaye ak xasida ak sëñ tubaa la nga tudd Ahmadou Mouhniyane xasida googu yi nag dañu dugg ci biir wax leen li tax tey ji ñu géewal ko kon ku géewal ak xasida géewal nga sëñ Tuubaa suñ jógee ci moom xanaa dañuy def euh, euh, la lawlax ndax dañoo waroon tàmbulee ndeyjoor jëm càmmooy sax ñun nuyu sunu euh, xarit sunu jëwrin ndax ñun sunu jëwrin la ci kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacke muy sëñ Abdoulaye Mbaye Peex doon nag wax dëgg yàlla li ma naan buntub yoon wi ci wet gi nga xam ne ci la fare fu mu mën a nekk ci àdduna sëñ Tuubaa rek ci moom laa jàngee baatu ku ku ku Sëñ Tuubaa ku ko waaje ku ko wàllee fo fo ku ko waaje foo jëm da ngay daan waaw ci yow laa ko laa ko laa ko laa ko laa bu ko defee suñ ci jógee ci moom daal di nuyu sëñ euh, euh, sëñ jërëjëfe sëñ tubaa sëñ jërëjëfe sëñ tubaa nag moom man xawma fu mu jaar bu tur woowu <laughs> waaye daal sëñ jërëjëfe sëñ tubaa lañ koy wax man man xawma fu mu jógee waaw waaye daal jërëjëf suñ tubaa suñu Ablaye Diop nag nee na ma léegi sekkar la xam naa dana ko dana ko cabaxal ci biir buñ ci jógee daal dikk ci suñu alsaan suñu alsaan nag moom moom bàyyi faalu xasida yi la ko gars yi di wax ndax ñu bari xam nañ ko ci ci ci réseaux sociaux yi mi ngi jàngale ci xasida yi di jàngale daaj di def yu bare bari macha allah ah suñ ci jógee dem ci sëñ Maxtaar Jeng moom it nekk jëwriñ ci daayira jëysun xam ngeen ne lépp ci ndigal suñ Muntaxa la mm-hmm. ñetti téeméeri daayira ak fukk ñett buñ dajee fenn fa ñu soqat ca daal di boole ñoom ñëpp nag ñetti téeméeri nit ak fukk ñett ñu yëkkatee ndoo xasida sëñ Tuubaa yi sëñ Ablaay loolu loolu bokk na ci yi sëñ Tuubaa rafet le mm. te nga xam ne moom rek ko am mm. suñ ko jogee dem ci sëñ euh, sëñ sëñ sëñ Matar mais nga xam ne euh, tabarkalla moom moo jiite njàng mi mm-hmm. njàng mi nga xam ne ñoom lañu jàng ci jaysun bi ñu bari xam nañ ko yaakaar naa ci Masaalikul Jinaan mm-hmm. yaakaar naa nag ñii lañ ànd ak tey jii fas yéene nag ah yëngal rek mm-hmm. yëngal àdduna nag ndax Euh, yaakaar naa ne ñu ngi ñuy topp ci YouTube bi ah ñi ngi toppit ci Facebook bi YouTube bi dem na fu ne ci àdduna bi waaye jëwrin mais nga xam ne mooy jëwrin mbay gi jëwrin Mbaye Guèye moo nekk ne toog nekk États-Unis d'Amérique nga xam ne xalaat bi yëpp kat ci moom la jóge li naan sëñ Touba këram amut nii ba mu déggee ci noppam ne sëñ Touba bi muy taalif xasida gi tudd Ahmadou Mourniyan dafa toog ba mu yàgg mu ne Cerno ndax daay or am na mu ne ko Mbàkke soo amee ak séegu fi mu ne ko su amoon de moom laa koy bindee sëñ Ablaye loolu for na lool. Hmm. lool kenn mosu ko gis waa sëñ Ablaye Diop duggee ci noonu. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi yëpp ak bitim réew. ñu leen di boole nuyoo bu tedd di leen ziyaar di leen ndokkeel di ci jiital ñaanal sunu sang bu tedd bi ci Touba. murit saadix bi. jullit xaqan bi. borom yërmande ji borom mbég mi. cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir. al Khalifatul am li taifatil muridiyya yalla nako yalla sam yagal lol taxawayam mu yàgg noo jox ndigal te nu deppok ndigal di ñaanal rakam yep ak njabotu bopam ak talibe yep ak rew mi di ñaan suñu borom defal nu jamu te jamu joj ñu bëgg joxoñ nañu ko muy bis bi nek ci suñu kanam di fukki fan ak ben ci wër wi ñu jëm wër wi ñu nek muy wër ut deppok ben fan wala ñaar ci muharram di tam xarit mo xamni ni lu lëj rek sëñ Touba koy lijeenti su jaxlé amé amee touba ay teggi jaxlé ku bëgg téx ak àdduna ak alakhirah da ngay buur jëm ci sëñ Touba ku ko liggéeyal jarignu tay ak ëlëk ku ko sopp jëm kaw soxna Maymuna Kubra di magi sëñ Abdul Xaadir di domi Cheikhul khadim da waxon ni wa man tamassaka bi cheikhina bila shakkin wala tazabzubin nalal ulah li annahu xayrun min as-sudaani fii sarqi wal maghribi wal bidaani nee na lu mën a xew daal képp ku mooy ci sëriñ Touba jamono joo mën a nekk contexte bu mu la fekk tawat ak ñàkk tawat ak xew-xew ak jafe-jafe yem bu feeg yaa ngi ñëpp sëñ Touba kaw rek nga jëm dootoo jëm suuf daal ni ndax sëñ Touba moo gën ñu ñuul ñi gën ñu weex ñi gën ci penku bi gën ci soow bi gën tay ak ëllëg kooku la yàlla booleel sëñ mun Muntaxa moom la nu junj ndax réew mi jaxasoo na nit ñi jaaxle nanu réew yëpp tëje nanu lu ñu xamoon lépp làmb nañ ko tek seen lo xamni ni mënuñu dara wacce yalla ay saytu ta yalla yàlla touba djubo ak mom sëñ touba mo laq ngeureum yalla borom ci biir ak ci biti moo nu defal xasaa ci la lepp nek tay ak ëllëg mu ni ñew leen ci xasaa bu ñu fàtte ni sëriñ khadim Njaay tasawuf 1922 fa ngeen gi yanantu teud yanantu yalla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ki tax yalla bind lepp soppeem bi sëriñub Seexul khadim fee mu tëdd di a munawwara fitna ju mettee fa amoon crise moo fa amoon jaxasoo bu mettee fa amoon ñépp jaaxle yuuxu nu ñu defoon ci sëñ Touba mii lañuy ñu si waaw sëriñ Touba mii nu àndal ñoom ña tëdd ca yanantu ba de ca wetam ñoom ña fa nekk di fa dëkk ñoo bindoon lettre sëñ Touba ne ko yaay xaadimu rasuul waxal soo waxul solution du am yaa doon na yanantu bi ñun ñii daal ñoo bokk ak moom ci deret ni fii waaye nangu nañ yow mi ci senegal soo waxul jàmm du am waxal jàmm am sëñ Tuubaa ñaari xasaayit la yóbbante woon bu ko fàtte kon mm. xasiidaay solution yi ba mu ko joxee Madinatul Munawwara mm. ca la fitna ba seey ah. ay wa jeex ka nga xam ne mooy imaamu Madinatul Munawwara di mm. Omar al Kurdi mm-hmm. moom la waa Madina gépp daje ni ko santal nu sëñ Tuubaa mm-hmm. ñaanam gi agsi na mm-hmm. xéewalam mi agsi na fii ci Madinatul munawwar soppeem bi bekna rew mi amat na jàmm kenn jàmbatatul dara sante fi def nan sante seigne touba Omar al Kurdi jël khalimam ni noorul wilayati sa'ibul burhan noorul wilayati saatixul burhan yahza bihi mutanawirul azhani fanzur lahu mutajalliyan fi wajhi man jala sawadul jahli fi soodaani kuy kokum ni huwal imam al sheikh ahmadu man ahmadu man gada gada mutaradiyan bilhamdi wa sukrani li cheikhul haqiqati wa tariqati wal huda nuur nuuril huda nuuril haq lil imani kooka woyoon woy yooya Tuubaa la doon sant wax ni ko yaay xaadimu rasul mm-hmm. sëñ Muntaxaa nag joxoñ nañu ko kon nu dajewaat ñun ñëpp toroxlul sunu borom mm-hmm. sant yàlla sunu borom mm-hmm. jaar ci xasaayidi sëñ Tuubaa yi man lépp ñaan ñepp am jamu, ta wajal màggalu Abdul Qadir, ndax buñu faté ni suñu démé ci fukki fan yeeg ben dañuy xey suba ci fukki fan ñaar sant Abdul Qadir, ndax gane ndax gane adunam, waaw ndax gane adunam, hmm. gane adunam, buñu faté la ci sëñ touba waxon hmm. dañé maam Cerno hmm. yoon wi ngay dem bay dikka bu yebo nga dibal dox bi ndax sunu borom néna ku soobu ciw yoon ñetta la ciy jàpp ñett rek la ci mëna dal da ngay dabe wala ñu dab la wala nga daje képp ku dugg ci yoon da ngay dab nit wala nit dab la ci yoon yi wala nga dajeeg nit ceerno mu ni mbàkke mu ne ko gan gi ma am yalla may na ma ci yow mi joxe ju tur bi diibalal yoon wi ndax yoon wi nga sóobu ko fi dab yalla jéggal nako ko la fi dab yalla jéggal nako ko fi dajal yalla jéggal na njéggal googa nit ñi tit nañu jaxaso yi bari te lepp ñoko ko ñoo tooñ suñu borom wane bopam señ muntaha dajalenu bëggaat nag jàng xasaayid yi suñu xëyee sant sëñ Abdul Xaadar élimaani élimaan ya sant sëñ Abdul jàmbaar yi sëñ Tuubaa ja nitu sunna sa sant sëñ Abdul Xaadar mu dippi sëñ Tuubaa ci lépp yaakaar naa bu ñu ko defee daal jàmm dina am ñu dem nag ci le 18 safar muy sunu màggal gu mag kon daal sëñ Xaadim nu ngi lay sant macha allah nu ngi nuyu sunu jëwrin alaaji Abdoulaye Mbay Peex moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mm-hmm. dama koy wax ni ko yow sëriñ Touba taxoon yàlla wàcc la. Mm-hmm. dëgg la mënoo ñàkk ci yoon wi. ndax saa boo waxee ci sëñ tuubaa ñëpp seen xol yi set. nit dana jàng ba yëy téere yi. te yow loo wax bu demee ci téere yi gis ko. loolu mooy ma lañ la defal. Mm-hmm. loolu nag war ngaa xam ne sëñ Abdul Xaadir la ko fàggu. te ci nga nekk guddeeg bëccëg bëgg sëñ mm-hmm. Touba wóolu ko di ko waxal. kon ñu ngi am mbégte feggoog moom. nuyu nag sunu sopp yi nga xam ni seen dund gépp xasida la bàyyi faalu xasida yaa ngi nii <laughs> seen dund gépp rek xasida la ñuy liggéey ci la ñuy yëngu di sant sañ Mbay Gey waaw ndax wax nga léegi sëñ Tuubaa mu ndaw tout tànk lay am mm. ndax sëñ Tuubaa mooy tànn ñoñam mm. bu ko xalaat loo mu xalaat ni sëñ Tuubaa daa waxoon ni xasida gii di Ahmadu Moxniyan mm. bi ma koy bind su ma amoon daaw wurus moom laa koy binde xanaa xamoo ni xasida ak Ahmadou Mourniyan mm-hmm. sëñ Touba nee na ku toog di ko jàng jarul ngay tifli mm-hmm. ndax saa boo tiflee tifli ci kaw yanantu bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. ndax du tàggoog moom ci wetam lay toog di ko dégg Ahmadou Mourniyan loo xam ni sëñ bi nee na bu ngeen ko jàngee na ngeen am teggin bu leen tifli su ngeen tifli tifli ci kaw Moustapha loo xam ni sëriñ bi nee na su ma amoon daawu wurus daawu wurus laa koy binde ngir fi ma teg xasida gi loo xam ni sëñ Touba nee na bi ma ko bindee malaaka yi ŋànk aras dañoo kontaan ci xasida gi ma bind loo xam ne sëñ Tuubaa nee na ku ko teg ci biir néegam soo xëyee ne yaa ngi yanantu bee fanaan bul kafaara li nga wax dëgg la yaa ngi yanantu Moustapha yi na fanaan kon loolu la sëñ bay Gay yëg ne nag yéen a jël sëñ Tuubaa amoon yéen a sëñ Tuubaa di mi bëtam ñun ñoo ko war a mottali ndax tey teraanga yi bari na xaalis bi ne na gàññ milliardaires yi bari nañ ci yoon wi mm-hmm. borom alal yaa ngi fi mm-hmm. te ku ni damaa bëgg sëñ Tuubaa te muy dëgg mm-hmm. ñu wax la lii mébétu sëñ Tuubaa la yow la nga denc war nga ca genn sedd sëñ toba <laughs> ñu jël xasida gi bind ko ci wurus jox ko jambaram gi sëñ muntaha mu dal di ree réewu mbégteem mi ñaanal ñepp li moy yitte jataay bi ñu bëgg a nak waxtani waxtaane Ahmadou Mouhniyane ak solo si ci nek and ko mbokku taalibe yëpp jërëjëf euh, sëñ abdou ah mom dafa mel ni daanaka bu ñëwoon fofu coupé sax baxna na ah. dëgg la euh, mu neex na ba nopi ah. euh, da mel dal daal bi kenn dégg ngeen liko ko tax a ku ne fi nga nek ci sab sal di sant si jërëjëf sëñ Tuuba mi waaw ah. moom turam bi rek damaa daaneel. wax naa la léegi dama koy joxe sax ndax secret la. te turam a ko indi cent 311. saa soo xëyee def benn. teg ci fukk teg ci ñetti téeméer. muy cent 311. boo ko saxoo ci jërëjëf borom Touba. da danga gudd fan da nga am wërsëg. loolu moom lu wër la luñ ma xamal. waaw moom mii turam bi di jëf borom Touba. waaw ñu ngi ziar sañ Maxtaar. ziyaare sëñ sama xarit sama soppe. yànkat bu mag. ci woon ñu ngi lay ziar di la dëgge nuyu mbokk yi teew yëpp ci jotaay bi. jërëjëf euh, sëñ Ablaye wax dëgg yàlla li nga duggee doy na sëkk kenn mënu ci teg dara kon nag léegi li tax yëf yi jotaay bi jóg weesuwut yéen taalibe murid yi yéen sëriñ su baax si yéen milliardaires yi sëriñ Touba yi yéen taalibe yéen ñëpp daa jaar ci nun ñii rek ñu di ko yëkkati tey jii ñu di ko yëkkatil sëñ Touba mooy sëñ Touba daf ne woon xasida gii ma bëgg a bind tey xam nga lañ ko ca dig ak la xasida ga doon ba tax mu ne su ama su ma amoon daayu urus bindee ko ko loolu rëy na de. tey tey buñ ko bindalee daay wurus ba wékk ko ci barabam mm-hmm. at àdduna tukki. a <laughs> ah, jébbal ko nag sëñ Muntaxa Basiir mii. Mm-hmm. kenn mosu koo gis. Mm-hmm. kon nag loolu rek la numéro yaa ngi nii léegi ñu di ko affiché. géew bu ne nag géewal nañ ko fi nit géewal nañ fi nit daal di laaj téeméeri million ci jataay fanaanut lii nag soxub sëñ Tuubaa la boo xam ne bu dóoree te soxub sëñ Tuubaa du laaxam dëgg la moom daal na daal di sotti léegi téeméeri million la budget bi doon. fi ne téeméeri nit fukki nit képp yoo xam ne ku ne 10 millions bu ko joxoon te am na ñoo xam ne mën nañoo joxe 10 millions waaw mën nañoo joxe 20 te duñ ko yëg ah, kon nag ñi ngi ci woo mboolem koo xam ne ki yàlla may na la teral na la te la nga yor sëñ Tuubaa ko moom hmm. ñi ngi lay wocc jataay bi waaye nag xeebuñ ci nag ka yoreb téeméer jàpp ne boo ko orange monnaie daf koy ruus déedéet dañ joxe numéro yi téléphone yi ngeen di seen orange monnaie wave euh, ak euh, free monnaie hmm. lépp lu ñuy envoyé xaalis numéro yooyu am na ñoo xam ne ñi ngi ko ñoo ko ŋànk tax xaalis bu ci nit dugal bu def dërëm incha allah dañ la ko defal ci liggéeyam sëñ tubaab bi dara tax ko jóg lu dul sëñ tubaab mi mébétoon bind xasid ak ahmadou moo xam ne yan ci wurus wurus bari na fi ne gaañ ñi ngi koy takk suñ mbokk jigéen yi kenn rek mën naa jëlab ca xam daal di daaneel ci taabal yi daal joxe naa ko sëñ tubaab ak denc wurus woo xam ne yaa fi dencal say doom ak yu kenn xamul lebal ko sëñ tubaab sëñ Ablaay looy duggee foofu euh, sant yàlla bu baax julli ci sayduna muhammad sangub sang yi sant bu baax Serigne Touba mi tax nu tal ko ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg loolu ndakk ti wér Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg ñaanal sunu bunt ci Serigne Touba Serigne Cheikh Mbakkeem Cheikh Abdoul Khadir yi li maa ngi tey ba léegi ak njaboot Cheikh Abdoul Khadir yëpp waaye ñaanal sëñ aboom soxna May. خليفه مام سيخنده خليفه سيدنا مولى مامون مو ياغ في لول تيبي اك نيبوت دار السلام ييب واخ نك سيدنا منتخا لامتول مو سيدنا توبا سيدنا توبا دو بالامتو لامتول دي سيدنا بي واخ موم لي خزينه يمن خزينه يرك نيوخو من واي سيدنا منتخا دا فا لكلي bu ñu yendoo ci xasida day fanaan ci bu ñu xëyee tabbi ci Cheikh Abdoul Khadir yi ni may tey ba lëggee calo Cerno Birahim dégg loolu mosu koo dégg déggatu ko kenn nit déggatu ko Cerno mun ko mbakke mun ko yéexal sa ngay jéego ba ba ngay dem ndaam koo dajal jéggal nañ ko waaye maam Cerno gore ba mu ci jógee dafa am yenti weer di gane Kajoor ak Bawol di taxaw ci mpénc ni ko dem jullit kaay gis ma jóge ci xasida yi dem sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir mooy xasida yi ndax sëñ Abdou Khadir mooy sëñ Bamba moo ko jege moo ko doon moo ko doon moo ko nekkal ñu ko mag ñëpp sëñ Touba wooyee nañ ko sëñ Touba ay rakkam wooyee nañ ko sëñ Touba gëm ko ku faatu mu jullee la ku nekk ci ginnaawam boo sëlmalee ñu jéggal la jumaa ji xam na kan mooy Cheikh Abdou Khadir l'islam jëmu ko Sénégal yóbbu ko. comme jur yar na la. kon Cheikh Mamadou muntaxaa dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam. waaye bi Cheikh Abdou Khadir nag ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu. kon daal xasida yi ginnaaw yàlla ak Sëriñ Tuubaa moom rekk fi mën a jële mbas mi mbas ñemewul sëñ Bamba waxoon naa ko ne naa jàngoro dëkkul Touba sëñ Bamba fa dëkk bu fa jàngoro duggee sëñ ba génne ko moo tax lii li xasida yi man ci feebar bi sëñ Mountakha dañoo bëgg a dimbali rek kon nañ ko def te ànd koog moom te sellal ko te déglu ko li ci sax lu naaw tiim ndax moom kon bis bii ku ci feeñ ci lu baax ci ñaari bis yooyu dootoo nëbbu nu ñëw nag ci li ñu fi dajale mat naa wax xasida gi sëriñ Tuubaa ni nañ ko bindee or te or yomb léegi ñi di ko peese teg ko ci balaas te murit ci sëñ Bamba yi ñu ëpp doole or ku ci nee la gën ci sa gaal sëñ Bamba la ko jox nañu toj woor yi ba mu mokk ñu bindee ko xasida gi Muhammadul Muxtaar nañ ko ko bindee léegi rek bi may ñëw waxtaan na ma ak jenn jàmbaar munu ma waxal tudd ma maa nga ca biir waaw muy Pape Ali Guèye macha allah taalibe bi sëñ Bamba. maanaam bëgg sëñ Saliou. daf ma ni loo gis ñu di ko waxaale ci sëñ Ba gars yi ci sëñ Bamba waxaaleel ma te ñëw ma fay. maanaam wax loolu de. Pape Ali Guèye loolu la ma wax léegi. maanaam wax loolu de. moo na bu dul loolu sax. taalibe yi xëy ñu ci xasida gi. Mhm. dëgg la. moo Bamba Ndiaye Thiergane foo ne. waaw ah, oh. sa maam. taroon goñ taari birima dafa woo sëñ ma maane ak sëñ Babacar Ndiaye gaan ak sëñ Yàlla Diouf Lambaye. Mhm. ni leen bàyyi leen sëñ Touba génne damb sëñ ma maane tontu ko noo lank teg sa ndoom ak tànk gi moo gën a yomb li nga wax. waaw ah, lank nañ. tey doo doomu doomu boobu. nga xool Cheikh Amar jàmbaar ji nga xool borom kër gi nga xam ni sëñ Massamba te ni mu yaakaar moo tax xëcc day yàpp lu sëñ Tuubaa bind sëñ Massamba ko maas moo tax ñu ngi jaale doom ju te ja sëñ Moustapha ku ragal ko yàlla te maandu am jom nangoo liggéey talis gor bàyyi fi sëñ Maam Moor ak rakkam yi réew mi li ñu am taalibe sëñ Bamba yi xëjul ci xasida gi dëgg dëgg damaa bëgg ñu bind ko ba or bi des ñu boole xasida gi ak or bi dem jox sëñ jox seex Murtada góor nag waaw góor nag nañ ko bind ba mu jeex tag ñu dajale or ba bañ ko bindee ak xasida gi jëbbal seex Mamadul Muntaxa waaw xasida gi kat seex Mamadul Muntaxa la doon nekk segam na ca wala ndoo waa daanu ca teen ba ma sa ñi ci pind ba sëñ Tuubaa mu nawle mm-hmm. amul moroom wàcc ma daan naa la wóor ku daan kaw ngay féete bu doon ak moom tubaab bi am way bi mu gënee la joor xeexe moo ci bi bi ci dëkkale dama sàmbalaw da mu yóbbu ko ci gaar bi ci tiwaawoon jéeri joor ne mu def ko ñetti mbammeel chibre si la mbur yaama yàpp ma kees bopp ma France sa bayee déba su ko mu soxal ko ci dex gi ci dar ni gees di sëriñ bi yàgg da ko ni da nga maa mujjee <laughs> boo jëkkee woon ci man doo daan kenn. <laughs> bu ñu tàggoo bu ñu tàggoo doo dem feneen. réew mi réew mi Ahmadou ko moom. <laughs> génne leen li ci gaal gi ñu bind xasida yi te alaaji njuga kebe mu baax ma maa ngi woo doomam de ah, soxna moom inatu ak baax ku baax dafa ànd ak sañ daan deegol ñuy siyaar xabru sidna aliyu fa kaw fa mm-hmm. sëñ daam déggul fëgg ko moom kaw lax mu geesu mun ko xubba bee de or la mun ko cam def na tiim sëñ bamba lépp or lay doon maa la ko wax ñëw cëppeelu dem ci Cheikh Abdoulaye Laat yokkum jumaa ji Cheikh Abdoulaye Laat bibliothèque bi Cheikh Abdoulaye Laat autoroute bi Cheikh Abdoulaye Laat daara kaa bi Cheikh Abdoulaye Laat ni ko am Mbakke li ne laa de gis ko fa damaa bëgg li tiim sëñ bamba lépp ma def ko or mun ko xaar ma gindi la ko fi ko sëñ bi bind or léegi sëñ Bamba ko moom. ràngoo ko. takk ko dee ñu teg ko ca baat te xamoo foo jëm. bindee ko sëñ Bamba gën. waaw waaw waaw ah. ci la yor ay ngalam mu daanu ba fi nga dee ñu di ko séddoo. Hmm. te xamoo fa nga jëm fan la. Hmm. nañ ko toj bindee ko sëñ Bamba. or or or sëñ Bamba ko yeewoo. moo tax daal ah neex na. <laughs> lii daa laa xam. Ah, moo tax bi nga ma wooyee. Hmm. dama la ne baal lu ma doon def bima yalla bind seigne bamba rek tax te fi ne sama yaram dafa tang, bi seigne Abdou Khadre dafa jumsi si li ma sëñ Abdou Khadre defal ku yalla yàlla barke seigne ba motax bu jub see ku ma ñaan ma may la ku ma ñaanul ma may la ku ma leb ma lebal la ku ma lebul ma lebal la <laughs> lo bëgg ci man jëlal ay wallahi wallahi wax nga deug motax bi Cheikh Abdou Khadre benen bis la joge ci khasside yi tàbbi Cheikh Abdou Khadir noonu bàyyi ba ñu dimbale woon ah, waaw maa la wax loolu de yàggatul ah, waaw yàggatul te màggal gaa ngi ñëw daaw kat màggal ga yóbbu feebar bi ci sero waaw ah, dëgg la waaw dañ bañ jógee ga dañu bind leen fukki fan ak juróom rek réew mi kalaate waaw waaw ñëpp di xaar quinze jours loolu la mun la fukki fan ak juróom yee mat waaw moom mat naa <laughs> fukki fan ak juróom yee mat cas yi ñëw daanaka ci sero zéro cas bu ñëwee dootoo ko gis de. waaw sëñ Bamba jar na ko. mën na ko am na ko. dëgg la attan na ko yéene nañu. kon lii rek yoon bi. lii lii jataay bi. tey bu kenn nelaw. waaye na ko génne. waaye Pape liggéey Gueye daal moom lii la ma wax. moom nag liggéey sëñ Bamba la xam. waaw moom rek la gëm waaw moom sëñ Bamba rek la gëm. jërëjëf euh, sëñ Ablaye Mbaye Peex lii moo taxoon nag ñu ne nañ ko yow da nga da nga ciy mënut ñàkk. dëgg dëgg nag fi nekk nii. <laughs> daa koo xam ne kii xam nga fi nekk ku ne xam na ne xorom. lu tuuti la. waaye cin lum duggut kenn du ko lekk. waaw dëgg la fi nekk nii yow sëñ Abdou Khadre da laa xorom. dëgg la kenn du def dara. dëgg barki Serigne Touba fi ne nii man booy wax da nga te leer na ma ne. <laughs> Ah. ni nga may def man ni ngay def ñeneen. ñëpp la koy def. <laughs> waaw te seen bu baax booba day euh, tubarkalla mën na lu ne. dëgg la. woote bi nga ci woote nag yàlla na ngay njiglaayu daje bi. Hmm. ndax it bëgguñ mu yëm fi waye dañu bëgg mboolem télévision yi fi ne ci réew mi mhm. ñu dem fa lii daal bala ñoo mhm. mu dañ ko wax dañu bind xëssida gi mhm. ci or 100 millions waaw ba nopi la ca dess ñu boole mbuus yaak jafir yaak lepp ëpp ko sëñ mun tax ne ko nak mebetum sëñ tuba ma ngi ni waaye sëñ tuba mu jël xalimbaam seydina muhammad sunu borom ne ko demal defati sa liggey te moy yaqul lisanul xaal li bi daan naw léegi man ne ma tagal ma rasulullah man ne ca tagg ma di ko tagg di ko tagg ba àgg ci faraxtoo bi xidmatin lazania ba àgg ci dem ba mu yàgg sama baay sama borom ne ma bégloo nga rasulaay mbég moo xam ne kenn dootu ko béglooti ci àdduna suñ tubaa ma defal sidna Muhammad kenn dootu ko def moo ko wax dëgg la maam laa min min al xidmati laysat faniya te nee na denc na ci lu dul jeex kon nag lu dul jeex doon ci li ñuy butti nag tibb ca tasaare ko ah yaakaar naa ne bésu suñ Muntaxaa bi mooy kon nag xasida gii sëñ tubaa moo ne woon or su ma amoon wurus bindee ko ko mm. waaye tey nag mbaar mbaar yi kat li ci garaaw. Hmm. mooy sëriñ bi bi muy wax diggam ak yanant bi. Hmm. dafa wax ni yaminu rabbiya. Hmm. mazaarul mujtaba afdalu min mil i bilaadi zahaba sahaba dégg nga ni sëriñ la wax sëñ bi dafa wax ni maa ngi giñ ci yàlla sama borom mi ma sàkk man xaadimu rasul dem ci bërëb yanant bi ziyaare ko moo ma gën a réew yi àdduna yëpp ñu sol kooku or ba mu fees dellu jox ko léegi nag ñun ñun suñu ñun lu ñu moom ak suñu jëm ak lépp sëñ Tuubaa nu moom kon nag buñ ñee xasida gi dafa amoon yéene mu ñu bëtam def ko or ah. war nañoo génne suñu or yëpp wax ko jox ko sëñ maa la wax loolu dëgg la waaye yëgal leen de Pabaale Gueye daan na moom dëgg la maa la ko wax ne la daa soo demee tudd ma tudd Pabaale Gueye lu ñuy lu ñuy waxaale waa sëñ Bamba wax fayal ma kon nag damaa defe ne ci moom lañ koy tàmbalee mhm. waaye nag numéro orange moo ne yaa ngi noonu euh, ak numéro Wave yi képp koo xam ne ki ba ngaa dugg rek nga dugg yaakaar naa ne na ngeen ku am big man nga japp bi ci njëkk 77 438 30 59 ku ñu wax soxna jaara benen bi ci dess 76 762 66 41 76 762 66 41 seigne Fallou Aw benen bi ci dess 77 930 34 90 930 34 90 boobu 77 la suñu ku ñu wax suñ koso caam beneen bi ci des 76 le, 341 55 49 76 341 55 49 lu ci waay joxe na xam ne duggut ci poosu kenn ci ñii kee nga xam ne moo ko njëkk xalaat ma nga États-Unis la nekk ba mu ko waxee rek la mboolem taalib bi yëpp jóg ne loolu moom loolu bu soobee yàlla yittee sëñ Tuubaa la du laaxan mooy daal gu mu bëggoon ne mu waxoon ne su ma amoon daay or de bindee ko ko léegi nag tey or bi fépp sëñ Ablaye dégg ngeen ko li wax sëñ Tuubaa moom or ak borom or yi dëgg dëgg kon nag li ñuy denc ci gaal yi ak di ko def ci compte yi or booba nañ ko génne tëgg ci xasida gi bindal ko ko ci ba mu jeex ba mu xam ne moo moom lépp moo am lépp la ca des ñu boole ko dem jëbël ko sëñ Muntaxa dañ la won sax tabla biñ koy jëbël sëñ Muntaxa nga xamné gaay liggéey bu rafet lañ ci def xamna naa dañuy diggal nag dugal euh sëñ sëñ sëñ sëñ Matar Cuun mu jangal ñu tuuti bu ko défé ñu dugal sëñ jëf sëñ touba ah yow di dama def ne xana so so jëlun ay ay benn benn bayit ndax ci yow la ñu waroon a ubbee tax ñu bëggoon nga ñëk a ñëw waaye ubbil ñu Ahmadou Mouhniyane rek su fekkee yaa ngi mom wa def def ci ay bayit rek dedet yow jeex guddi ñoo ngi wa and ci xasida yow kay fo dem fo taxaw tek fa sa baram yow daal jàngal ñu ci juróom-ñetti bayit teg fa sa baaraam bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ahmadu muniyan taala ansina وكان لي بكل شهر وسنة أحمد مونيا تعالى أنسنا وكان لي بكل شهر وسنة قاتبته في البر والبهر وفي عصر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق ما سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمال واكتم له يوم بسارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارية مع سلام بالمنى مصاريا على الذي أخطيت مدادي مزمن ما سفى ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مداد قلو ما شاء يا من لو أوجه الإنشاء ومن مداد قتله ما شاء يا من لو أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة تاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أحتيت أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمآل ومن قلامي قد له تفسيرا يا من لنا أرسلت بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك زاهر على الذي أعطيت قرطاسي بقدم دمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل ومن قراتي سيل القد القرد يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي قمته قد أحرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآله وصحبي في الحال والمال وقل من قدمي سرورا يا واهبا وبلي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل استكاء محصلا من مرديا على الذي أعطيته المدادي مسلمين rasulaay mi nga xam ne man sama daag sama lépp moom laa ko jox wallaay ndeysaan daan ne nag ma lu yàgg waaye wëlbatiku lii nga wax li mu mujj bay bi mujj wax ne nga amul lenn looy jàmbat jëmee ko ci moom te loolu du faju la ilaha illallah kon lii moom lii moom lii moom dana saafara muskil waaye nag numéro yi ñu joxe numéro yi jarul di woo di laaj numéro yëpp am na yi am na orange money am na wéef wéef am na free money mhm. waaw mm-hmm. léegi ah, mm-hmm. yéen a ngi gis nañ ne nit ñaa ngi tàmbali dugg noonu la kay dañoo woo murid yi mm-hmm. moom kay nañ nañ nañ nañ na nañu nañu def ci numéro yi rek waaw nañ def ci numéro yi rek def ci numéro yi mooy woote bi. mooy woote bi ndax fii nu toll. woote bi dañuy të dañuy tënk. Mm-hmm. waaye nu def ci numéro bi rek. dëgg xam nga phrase moom. Mm-hmm. nduróo naag yàq waaye ngóoba ko weddi. dëgg la <laughs> mooy liggéeyal sëñ Tuuba. waaw nga dëgg de. phrase nduróo naag yàq waaye ngóoba ko weddi. waaw nga dëgg de ah, baax bu tooy la nee nañ liggéeyal sëñ Tuuba loo ci ji rek. Ah, dëgg la dëgg la waaye <laughs> nga yóbbu. boo fay jógee. ay saret lañ. si nga koy sëf. wax nga dëgg de liggéeyal sëñ Tuuba ngoog kon. waaw waaw waaw a jëf ah kon de xanaa nga tàbbi ci nag mu ngoog. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbooleem ñi dégg kàddu gi. Mm-hmm. di nuyu sunu wasila Serigne Khadim moom si Abdoul Fatah moom Serigne Fallou. dëgg la. ah bi ñuy ñëw tàggu nañ ko mu jox ñu ndigal ba noppi ñaanal ñu. <laughs> dëgg la de. gannaaw Serigne bi dafa xam ne laa tabaloo say an bi xëyri ndigal. ndax fal ndigal kat sàttu fi xabari nangu jëf hmm. loolu moo ñu dugal ca loola di nuyu jotaay bi yëpp bu ñu tuddee kilifa ak jotaay bi ndax yoonu mu rek noonu la ki mag ki jotaay ba rek mooy kilifa ga téléphone bi moo fonkat sëriñ Abdoulaye Mbaye Peex hmm. nuyu nen ko bu baax ziyaare ko bu baax di jaarale ci moom nuyoo boobu nag hmm. di nuyu sëriñ Xaadim sëriñ Abdoulahi euh, Diop Bichiri sëriñ Baye Fall xasidi ak ñaari sëñ maxtar yi mu mel ni euh, xëy na sëñ xaalim daa waroon naa tàmbalee ci sama classe bi nga xam ne ay tuutànk la ndax fii sëñ Ablaye bàyyee ñaari sëñ Ablaye yi yaakaar naa teg ci dara sëriñ bi la kenn xamul lu mu doon bu sëñ Tuubaa doon jeex moom jeex na waaye yëngatuwut sax fii nii te teewut sëñ Ablaye mu njëkk a wax li mu desee boo ko doon xool macha allah mën na heure sur mille sëñ Ablaye mi noonu te kii nii nee nañ siiw jotaat ci ba bëgg a waaw kéemaan la euh, fi ñu ci njëkk duggee mooy kéemtaan gi am ci liggéey bi muy sëriñ Mbaye Guèye mi nga xam ne yàgg na lool ma gëjoon koo gis ba ma gisaatee tey li ma jooyloo mooy sëñ Touba ni muy def nga xam ne euh, Baye lay Mbaye peex ku dul sëñ rek amoo njëriñ dëgg la loolu nag da koy détaillé ba mu leer ndax jamono toll foo xam ne looy wax na nga ko assimilé mm-hmm. Euh, maam Cheikh Anta bëgg Sëñ Tuubaa jox responsabilité bi yem ni 99 taalibe ay taalibe ak ab dëkk ak yu demee noonu du jëmmi maam Cheikh Anta moo ko attan Sëñ Tuubaa mooy attan. Mm-hmm. Sëñ Abdou Karim Touré ba ko sëriñ bi boog Seydina Jibril alayhi salaam muy dugg ci jëmmam Jibril xajut fenn waaye sëriñ bi daa yor jikko boromam. Mm-hmm. yàlla bu ko neexee jël àddina dugal ko ci bën bënu puso te du yokk bën bënu puso bi du wàññi àddina. Mm-hmm. لول سيغن توي يالا جيغلا نكو مان نكو سيغن باي غي خلاتام سوخنا سيغن عبد الله توري داف ما مسا واخ ني سوخنا ماي موم سيغن توبا بلوم بلوم ريتو خدر مسنا نكو شيخ محمود المستوى دي مسنا ما واخ ني خلات سيغن توبا دي وول بيتي بوب خلات سيغن توبا خلات كو دي وول بيتي بوب باب لاي كورد يالا ولو خرات سيغن توبا ناخ يالا كيبا خام سيغن توبا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي ku dul yàlla xamoo sëñ Tuubaa ku yàlla bind nag sëñ Tuubaa xam na la ki ñëpp réere muy yonente bi aleyhi sa wa salaam sëñ Tuubaa moo ne araytani sirra rasulillahi wa qaala laa ilaha illallah li ci gën a yéeme mooy lim xam ci yonente bi yonente bi xamu ko ci boppam ndax mooy li tax li tax mu gën loolu programme suñu borom la programme boobu la yàlla woon sëñ Tuubaa ba mu man cee woy loo xam ne kenn xamul nu mu yem léegi xalaat yooyu ma doon xalaat am na bis loolu lu ñu digaloon la pour ñu xam liggéey bi kéemtaan gi fu mu juddoo moom day xalaat rek am bis mu eseti nga daa bëggoon bu ni bindati lenn ba di ci boolee turu sëriñ bi ñu da ko def gros caractère ndax loolu yàlla la ci gën a neex nag dem na ba dégg sëñ Mbay Jaxate ak sëñ Moussa Ka loolu bokkoon wax te moo am sëñ Mbay Jaxate dafa ne naka ma xam ne du ma góor waye man am lu ko jiitu mooy yaa gën lu nuy bëgg ka wut wala wax ju daj la moom dara génn ci yaa gën lu nuy dox di mébét yow borom tubaa képp yaa mat bëgg mat a wut ku la am falu di buur jóge nga yow faaw fi suuf doo dellu mukkati suuf safe nga doo sàppeeka suuf ñam nga wudut nëbb ko xóor sant nga te santlu sopp nga te sopplu topp nga te topplu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën sës rekk ci buur yaa mën a saytu gaa yi buur bégal nga buur ak gaa yi buur ñépp a ngi bég ci buur mooy dalani yàlla wa ala allah bila taqarir wa mitaqabala mom la ci gëna a moy mu ne nag sëriñ bi sëñ bay jaxate ne naka ma xamee duma góor loolu la bay jaxate wax am da koo lijjanti xoolaat xol fa yëpp ne du góor te yër ba xam ne yow borom tuba kep yaay góor ci la bayel mon def nak ñëw naan la jaajëfe góor sew desa tax ñépp suur am ko way ca gannaaw daan ne bu neewon ku kaala wa dem mayumba góor ñëpp musóoru waddu tay ramal bamba bu newoon ku sol mbaxana dem wala mbay njëkk ba kongo mujj góor ñëpp mariñaayu tey xeeñoo gongo ñi xam gongo xam ne loolu kéemaan la waaye bu yeboon teel koo def wala kon bu def sëñ Tuubaa muy nit bu nekkee nit doon góor rek ñi des bu yeboo ñu xam ne leen doon moom moo si bind ne Adja Mbaye Guèye ma ne kon bindal ma ajaratu wala ma ne mbay Mbaye Guèye kon bindal ma jër Adja jërëjëfe sëñ Tuubaa mun naa bàyyi du ma ko def man kon yow yéen a dangaa xam te xaw ma xanaa nee nga sëñ bee góor léegi yow doo góor man du ma góor bi day bàyyi sa waaw doxal ndokk ndax aleykum ngi siyaar bu baax suñu bàyyi suñu magum taalibe euh, moom Mbay Sàmb waaw muy koo xam ne soldaaru Sëñ Tuubaa la bu ko defee xasida gi nga xam nag kon moom la xalaat ba am xasida gi nga xam ne moom la xalaat ne war nañ koo bind ci bëgg-bëgg sëñ Tuubaa ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha keroog ba nu àndee Serigne Khadim mi fekke na la ñu sëñ Mountakha wax lépp ñoo ngi ñaan yàlla na ko bokk ak jullit ñëpp waaye fii sëñ Ablaye ah, sëñ ah, sëñ Abdoulahi ah, Diop Bichiri wax dafa am lu ma noté woon lu yéeme loo xam ne dama ko doon fàtte sëñ Abdoulaye mm-hmm. loola nga wax ci doomi sëñ Tuubaa li mu bind ne sëñ Tuubaa képp a njariñ mm-hmm. sëñ Mbay Jax dafa wax ne yàllaa ngi yor yëfam ak yëppam mm-hmm. yëfi yàlla ak yëpp yàlla di seetu nitam te waxtu wuy gis ku koy soob rek mu jàpp ko fal ka yàlla jox pal ga nag kooki rek ka mat xam te pal ga jox na ko tey jii bamb mii ñu nekkal daan ne wallaahi ñoo texi ñun gars yi bamb yi ñoo fi gënit moo teenu sant faf suñ jot yi rafetal kuy teenu sant suñ waa ji di waa ji fi gën du def lu bon du ko seetaan du wax lu wóor moom dex la fu gis lu bon day daal di fëb na tërax ku bon na jóg wute dex dex rek kuy suturaal benn ci mbaaxaan ñoxom war a jàllal ah, ndax lan mooy tilim gu rëy safatug def fu mu ko jàpp mu set ndax lan mun a dex dafay jàpp santaare ki seen di labal borom tubaa suuxal na mbooleem lu dee fa wax na lii rafetul ngir jëmmi yàlla kii dib sang nañ ko jëfal dégg nga wax ji de kii dib sang nañ ko jëfal nga def kon entre lan mooy jëf ji murit yëpp danoo maase ci ne li ñu yor sëñ tubaa ko moom kon bu dee dëgg wallahi balaa ñu fay jógee war nañ fay bind ñaari xasida ndax xaalis moom am na ci am na ci poos yi am na ci compte ñoo ñuy déglu Baye Ablaye Mbaye luy loolu nit du nit du fen boppam ñu yëggal ci wax mooy lan li ma yor sëñ Tuubaa ko moom. waaw hmm. masalan tey jii sëñ Abdou sëñ dénkoon ma cent mille hmm. ma xam ne moo ko moom ñëpp xam ko mu xëy na ma jërëjëf joxoon ma Baye Ablaye Mbaye soixante-quinze su ma déngi déngi rek nanu ma cëg ñub hmm. dëgg ko moom lan wax moom moom alal yi moo ñu moom sëñ bee ko laaj. ko ko ci yor ci joxe ko ko. yow yi nee sëñ bee ko moom waaye moomu ko. Mm-hmm. te sëñ Tuubaa lu mu moom baaxul ndax moom moom Cheikh Rafal. Mm-hmm. maam Cheikh Ibra mm-hmm. ci moomeel ak sëñ Tuubaa kaw ba ñuy def lii fi sëñ Ibrahima dama ne yëf yi noppi na sëñ Tuubaa da koo bind ba noppi sëñ Mourou Moussa dafa mas sëñ Fall ne ko kaay ma wax la mu ñëw. mu ne ko liggéey borom Tuubaa bii lépp loo yaakaar ne mën na koo jagal dugg ca ñu ne ca. dee ñu leer ne mënuñ ci dara waaye sëñ Tuubaa na ko matali ne ko naa lax sa bàyyi ma ko waxoon dañ ne jàmbaar lu mu jàmbaare jàmbaare bu fi jógee bàyyi fii naal Muhammadul Moustapha bàyyi mu fi benn naal lu ma masal naal yegg na dama fee naal ay naal yoo xam ne nag daa ma jublu dama ko naal ngir yéen ngir bu ëllëgee mu doon aw lay seen diggante ak seen borom ndax texe gama leen di texeel kon sëñ Tuubaa wallaahu yansuruni looloo waral wal xalqu fil barri wal bahri loolu lay doyee sax na fil a darin ku dul sëñ Tuubaa am boo amee positif it am nga négatif ci wet gi sëñ Tuubaa wenn melo la positif sëñ Tuubaa mënta lore mhm. fii xool ree sax jàpp ak ku ne la yaa koy xam mhm. ndax lii ñuy def dañ cee tuuti lool waaye ak a baax sëñ Tuubaa ak a baax mm. fii nii dañuy seetaan di xool ñu nu ñuy kurkuree waaye noppi ci da ko bindee pare muur ko ci barab léegi weñ gi moom te war koo muree li muy mooy téere bi mooy ku bokk ci liggéey bi rek bokk ci weñ gi sëñ Mouhamadou Dieng sëñ Hamsatou Mbacke kenn fi yàgg te mooy yónni woon sëñ Ndiaye Xasida ak sëñ Ibra Gueye ak Cheikh Bas Maraxib ak sëñ Mourtadaam sëñ Bas ne dem leen ngeen taataan ay waxam ban demee ban maa indi lay wax ji maa ngi dégg kooku di wax te 1926 la ñëw jamono sëñ Mourtada moo ma ko jox mu ne xasida ak Ahmadou Mouraniyan bis boo ko jàngee bu altine ak yàlla day yónni malaayka yi ñu jël xasida gi xasida gi nag du li ñuy yor nii ndax alxuraan du araf du baat lii ñu yor dañ ko yor ngir mën a waaye lay xasida gi dëggantaan àddina sépp atun ci wenn wenn bayt te mën nga see gàdd yow léegi juróomi téere kon loolu leneen la mbir la malaayka yi la yàlla yónni ñu jël ko jox ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu yët ko suñu borom hmm. ci bis bu altine doo alxames maa dégg ma wax 1926 hmm. la ñëw jamono kooku hmm. nee na waaye bu dee bisub altine malaayka yi duñ ko attan te pourtant dongam sëñ Tuubaa koy jàng xool sëñ Tuubaa ni def dongo yi moo tax koo koo weccoog sëñ Tuubaa baaxal ba desal koo mën a doon doo sëñ Tuubaa sëñ bay jaxat dane weesul ma fépp lu nekk fépp ak lu nekk képp doo waru koon xamal ne fépp ak lu nekk képp bind la kat te bind loo ko naw naw naw ko bind ko gën moromantuwut ak kenn sëñ Tuubaa ñu naan hors-série sax du hors-série sëñ Tuubaa du séeréer du lu kenn xam waaw mm-hmm. ah, boo ca bëggee noppalu mm-hmm. nee na boo ko bindee boo ko jàngee bisub alxames mm-hmm. malaayka yi duñ ko attan yonent bi du ko attan yàlla koy jël si lii laa dégg ci moom de bouche à l'oreille bismillah barkalla jërëjëf euh, sëñ jërëjëf sëñ Tuubaa ah kon de jërëjëf waaw kon nag yëf yaa ngi noonu sëñ Tuubaa amul morom fii la ñuy xamee ne sëñ Tuubaa moroom morom xasida gi daal sëñ Tuubaa bi mu koy bind bi ndigal li wàccee mu war ko def muy turu yàlla wu mag wu rëy te nag xam ne nag doomi njaareem la amadou mouhniyane doomi njaarim la de amadou mouhniyane barki seigne touba njaarim la soso bi sëñ tuba ba mat bi matee ba motti nak ah fa la ko def 25 26 waaw waaw mu wëlbati ko beug bind xasida gi tan ne cerno daay wurus amna day wurus day wurus amna ngir hmm. beug ci ciap di bind xasida gi amadou mouhniyane ken musu ko gis dané ko su amone dey dana ko bind sama xasida gi ah yaakaar nak buñ demee ba ñun jëm yi ak mbaar yi ak compte yeeg lépp sëñ tubaa ko moom tey jii ñi ngi sóor mébét moomu daal sëñ tubaa doo ko fee bàyyi ndaw yii rek ndaw ñii rek ñoo ne na loolu moom daal di mat ñu daal di xam ne loolu mu dafa war a mat tey jii nag ñu dal fii ci Touba TV wala ñu fay jógee daal numéro yi nu joxe moom nañ ci dugal xaalis ba mu fees dell ku am 10 million joxeel ku am 20 millions joxeel waaye tam ku am téeméer ak mille francs dugalal fii compte yaa ngi noonu gis ngeen numéro yooyu ku ne sa portable bi nga ba bu ku woote daañu la mën a jël. waaw ku woote daañu la mën a jël. ba tey ba tey ku woote tamit ah, kii euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ daam sëñ daam bu fekkee am na ko woote ngir bëgg a joxe. waaye nag kay bay woote rek. ngir dugg ci xam nga àll day jàpp taalibe murid yi nag léegi loola day xaw a gàllankoor léegi waaye képp daal koo xam ne kii ah, sëñ Pape Alé mii de moom bëgg nañ mu dugg moom. Ah, moom dugg na. waaw waaw jeex na. Ah, bu bu bu subaa ba la tàggoo. waaw xam ne dugg na. ah allah. waaye it. moom mi kay bëgg nañ mu dugg. moom mi kay dana dugg. ah yaa ngi fi wax de. sëñ Ablaye Tage sëñ Ablaye Tage borom këram dana dugg. ñu ngi lay yóbbante. Hmm. ci euh, sëñ Madické. Madické ñan. waaw ñu ngi lay yóbbante ci moom. dana dugg. waaw kon nag xam naa ne euh, yëf yi moom dafa nar a neex rek. dañuy jox sañ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ ah déet suñu wayjur dafa dikk léegi nag soldaar ñëw na soldaar ñëw na tam waaye tey moom man soldaar dama ko dama dama dama ko séen rek daanu si rek ndax ndax Cheikh Abdoulaye Laat man dafa dugg si rek ah, sama àdduna tukki soldaar daal moom soldaar daal moom tey <laughs> eh. dafa dafa solo moom tey ah, ah, waaw déedéet moom dafa noo fàttali sëñ Abdoulaye dañoo fàttali sëñ Tuubaa ak maxtu mi wallaay wallaay wallaay wallaay daa xam ne tey bisu jëf la hmm? Euh, barke Muhammad ibnu Muhammad ibnu Habiballah ci liggéeyal Muhammadu Rasulullah ba lislaam bépp di ko woowee xaadimu rasulullah mu dëkk Tuuba mi na la woote ciy diini la ni ku jébbulu ànd ak man dem àjjana kon na ñëpp ni alhamdulilah mel ni mbokk yi maa ngi nuyoo tey ziar nuyoo bi nag ak ziar day jaar ci jëwriñu sëñ Tuuba ji ko fi nekkal mu jëm ci sëñ Tuuba mi fi ne ñu ko fi nekkal mooy El ji Mbàkke yu fay sëñ tubaab mi fi ne mooy Serigne Mountakha. Mm-hmm. olof yi nag xamuñu ko mun taqaa ci français mooy ku ñu filtré. Mm-hmm. moo man ñëpp. Mm-hmm. moom laa tuddee borom ñetti jumaa yi. Hmm? daaru mi neen la ubbi jël caabi ji jox sëñ ba Basiru baayam ubbi Masaalikul Jinaan jël caabi ji jox Serigne Bamba maamam. Hmm. ubbi Poroxaan nag jël caabi ji jox maam jaara maamam maami baayam. maa wax noonu a hmm. hmm. mu mel ni kon neddoo nag bànnam. wax dëgg nag xët yi ba taxay mbokkam. Ablaye maa ngi lay nuyu. wallaay wallaay wallaay Samb. nag gars après nag ñu door a seet waaye maa ngi. dëgg dëgg la dëgg la Samb dëgg la di wax ni. ay eh, soldat waay. <laughs> fii nu fekk waxtaan wi di nuyu jàmbaar ji nga xamante ni cër gi ma jox di nga ci yokkoo ku ma am te jur ko te mu yor dara dana la teral koo teral tëral ko koo tëral loo ko teree mu bàyyi ko waaye koo toroxal toxal ko mu daw la ni mu dawee toroxte mu mel ni kon sëriñ bi xasida juróomi ati gabon teguma cin tegaluñ ma cin tibb ma tëdduma الى يحاد ما عشتها كل ولي ما هي خير قلخي في الليمبر ولي الى يحاد ما عشتها كل ولي بلغينا كان سيغم يوم نيبوكنا بلغينا كان آه. ما هي خير خلقي في الليمبر ولي سما آه. جروم اتي ما يوم ما تغوم تين تغول ما تين تبوم تدوم ba tisbaar fek fa la ma tàkkusaan di fekk bis ma du gaaw a jeex faaw yonent bi xëllantoo ma baha yi rasulullahi kullu anbiya kon ay waxam muy xaside yi daa wax ni sama daa rek man gaa yi mboolem ku ñu wàll yu nga rek sama sama ndoxum man ci yàlla wax bu ba ci saaba yi ñu faatoo badar seen deret jooju ak sama ndoxum daa maase ci yàlla ablaay maawu mi daa di kër di ma usu daal hmm. sama ndoxum daa ak deret yi ñu faatoo badar ñoo yem ci yàlla sama xalima nag su ma ko ne caas <laughs> wajal xilaa bi fawxal kurama koo dégg ni baax na rek du ma dikk man sëriñ bi sama xalima laa yebal waaye su ma ko ne cas nag isa katabtu es tasar al si baax yi arasi yàlla jàpp a yëngandoo kursi yu yëngu jund laayil xaali boo na rëkk <laughs> jund laayil xaali boo na rëkk yàlla ne lu xew ñu ne ko xaadimal Moustapha mooy waaje way Mouhamadou Moustapha te booba ci waaj laa tollu am laay ay waajàlla amul nawle amul léegi nag buñ demee ba xasida gii nag mu ni man dama ko war a binde or xanaa xamu ne sëriñ bi toog na ga ba mu waxuma la coupe du waxuma la coupe d'Afrique coupe du monde ci bëgg bi sëñ Bamba man gaa yi toog na di bind ba yàgg mu bi daaju xonq laa ko war a bind Ablaye daaju jeex na bàyyi Cheikh Abdou mu jël xalima gi samp ci deret ji di bind turu yonent kon bu dikkee jóge ci noonu ànd ki noonu jëm ci noonu jekkuy noonam jéggali noonam ku ma sa jekku see noonu jekkali leen moom mu jekki ay noonam jéggal leen xëhër naa bii ah daay turan salimtu min al ah daay turan waaye afootu aneen ah daay turan ay ñetti turan waaye waaw waaw mu ñëw nag le 11 novembre 1902 tubaab bi dóor 21 coup de canon ah xam na ni góor lañ koy defal ni ko qu'il devait se révéler ah. comme le plus pacifique des prédicateurs de guerre sainte ah. le plus grand facteur de l'expansion économique. Bah, le plus solide soutien de l'ordre public. Le plus élevé apôtre de la fraternité. Non seulement entre adeptes de même culte, mais entre croyants de confessions différentes. Bam, merci. 11 novembre 1902. il faut que euh, ni ko boo ko tegee ci boo ko mokkalul léegi ma gas ko suul ahmadu muxniyan léegi lay mokk bàcc jël xasida gi teg ci dënn bi yëkkati ko ci sëñ Masamba te nag lu ma wax ci sëñ Masamba nit ñi mën ah, sama bàyyi ko jëkk gën dëgg la dëgg la set la ko jëkk dëgg la bàccante ceebu wala ko wax sëm alors buñ demee ba ñu ni nag ahmadu muxniyan sëriñ bi dama koy binde or xam nga yow ab Ablaye doo jóg ci lu kenn xamul nu mu demee mhm. sëriñ bi moo ni hmm. sama xabru or lañ koy xoobe wax naa ko léegi waaw dama lay jox bind mi mhm. waj al yel xariira wa dibaaja fil xabri yaa baasitu wa siraaja ñun làmbatu wunu nun murid yi ah, ah. Mhm. sëñ Tuubaa moo ne ñi ma yaakaar ñoo gën a kawe ñi ma yaakaarul ba yomul duxóol yi mu jëndati kon ya, dakar nga ni kon am nga morom ci eh. gaa kon xamoo xew yow deug la li kulli man bi ta'ala faaxa khayruhum ila yawm xuli bi jannati ni aju ci man ño gën aju wul ci man ba bis penc ba ba kéro ñuy dugg aljana ca bobu kon buñ némé ba yalla dogal nak ahmadou muxniyan loolu ci seigne touba wax seigne masàmba hmm. ni ko kon dama bëggoon day or hmm. waaw qasida googu na man na baye xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ni maa koy wutal tur xaside gii maa koy wutal tur tudd naa ko ahmadu muxniyan kon bu ñu demee ba muy door a agsi nag ci taalibe yi ñu ni kon xaside googu nañ ko binde or def ko ci jox ko ki nga xamante ni mooy sëriñ Muntaqa dëgg la bu ñu filtré bu ñu ko joxee lu ñu filtré ndax or bu ñu filtré wul doo ci mën a bind dëgg la ah or dañ koy filtré door cee mën a bind taqaa nag moom mooy ku ñu filtré ki kon Bichri xasida googu nag dangaa wax léegi Papa Alioune Guèye mais maa toog sëñ Mountakha ni nee ko moom Papa Alioune Guèye maa toog man sëñ Mountakha ni ma nee ko la ilaha illallah bismillahi rahmani rahim jàmm jëmmam ji ak sama jëmm ji laa boole jébbal sëñ Touba laahi azim moom Pape Aly Gueye te man du ma wax lu ma gëmul la ilaha illallah te wallaahi daaw ak ren gisante wuñu fi kon li ma wax ko dëgg la dëgg la dëgg la waaye Serigne Mountakha moo ma ni nee ko ndax da koo woon ni ko ñaata nga def Masaalikul Jinaan mun ko joxe naa ci soixante-dix millions mu ne nga demal nga mottali ko cent mu mottali ca trente millions muy cent

moo tax Ahmadou rek la. Ahmadou la kon bu ñu demee ba Ahmadou Mouhniyane jii nag ñu ne dañ koy bindee or man daal li ma bëgg mooy. jigéen ñi nañ jël ci seen armoire. koy bàyyi koy bàyyi seen armoire def ci seen armeel. góor ñi nañ jëlee ci seen banque def ci seen bàmmeel. koy bàyyi. waaw moom waaw moom la loolu laa wax gën a gaaw ndax it nag daa am loo xamante ni. nañ génn barki démb rek toog naa ci télé bi gis sam samu na kon Samsu mu ne bu mënee génne ay millions Samsu su ma war naa mën a génne lu ëpp millions. Ah, dëgg dëgg nag maa toog gis Samsu mu na grand théâtre waaw oui. ñu baatere Samsu mu ne Samsu mu ne mën a génne cent ba kii kon kay Samsu su si war naa mën a génne lu ëpp loolu. waaw dëgg dëgg kon nag appel ginnaaw nag bi nga xamante ni yow sëñ xaadim yow nag turwee garaaw ba mu nee maay xaadim ba tey kenn newul ak man <laughs> Ablaye xaadim deux amul xaadim trois amul <laughs> xaadim ko xaadim xaadim rek la <laughs> dong kooku rek la kese bokku la kenn kon buñ demee ba Amadou Mouhniyane mii nag xasida googu sëñ Tuubaa am yéene bindee ko or waaye moom am na ko dëgg la xam nga biñ nee yéene yéene yéene yéene euh, dañu wax ni niyetul moomin ab loxo min amalihi aha Cheikh Ibra Fall ne de de de niyatul mu'minin ab am loxo amal lii mooy amal lii. <laughs> dëgg la dëgg la waaye dëgg la. da nga gudd fan man lu ma ñaan suñu mu defal ma. amiin amiin amiin amiin Sam. walaay walaay wax bu ñu demee ba yàlla dogal laa wax. bokk naa leen ci. waaw waaw bu ñu demee ba yàlla dogal. ñun nag nañu woote. am na ñuy laaj numéro Wave yi tur yi ndax ñu mën ci barkeelu nee na. waaw Wave yi tur yi. damaa bëgg bu wéyee Wave yi. Hmm. lu bari. waaw ah, mu ngi noonu numéro yaa ngi nii waaw numéro yaa ngi nii numéro tur yi tur yi pour ñu mën ci barkeelu la ñu. waaw bi ci gën li ma moom numéro yi. waaw waaw tur parce que Wave dafay am tur. waaw ah, dafay am nañu wax waaw. pour ñoo man ko enregistrer envoyé ko. léegi nag maa ngi sant. ci bokk gi ma ci bokk. Hmm. waxtu yi may wax ak yow ku ma ne woon dinaa ñëw sax do ko mën a gëm xat xat bi ma fekk ma xam li ngay wax waaye dafa am loo xamante ne nag sëriñ bee ko jar mm. bi sama bàyyi di dem gànnaar dafa woo sama ñoom ndey ni leen jégal naa leen mm. gis ngeen seen bëgg-bëgg man gisuguma sama bopp te war leen ma ëpp fula dox wuti sëriñ bi ne moo tax nag daawul tudd tudd sëriñ bi danaan ka ma giseel ka ma giseel 1903 loo dugg ca génn ca dara yàlla di wut kon nag gars yi moo Amadou Mouf ni ma bëgg nag murit bu ne yaakaar sëriñ bi yaakaar ne bu ñu takkee sa tànk yi dugal la ci bàmmeel yaakaaroo ko sëñ Tuuba hmm. te kat kaay moo teg loxo sëñ Masamba maa ngi siyaare bu baax sëñ Maam Moor ah waaw wax naa ko léegi mu sëriñ Masamba wallaay di di di ñaanal euh, sëriñ Moustapha mi sagal daaru karim barab boobu mu tëdd nag amu ca kersa kër ga moo ko fa def jumaa ji moo ko door xabru bi ne ca kanam moom moom moom daal nuru sëriñ Abdul Xaadir xanaa xamoon ni lislaam sëriñ Abdul Xaadir ci man hmm? da koy mën a ñeme ah. moom moom la yàlla jox fukki jiin hmm. jub hmm. jubale jëllale jéggale jàng jàngale julli jullee ak joxe yow de dinaa la jox ñaari junni. xam nga lu koy waaye daal. barke Cheikh Ahmadou soldat soldat daal ñaari junni yi. waaw léegi nag kon bu ñu demee ba yàlla dogal laa wax lu mel ni am. ñaari junni daal la ngoog. kon dana rafet bon. xasida googu nag. am na ko dugg am na ko ne ci ligne bi allo. daa mel ni sëñ sëñ sëñ. waaleykum salaam. waaleykum salaam. waaw salaamaaleykum. waaw sëñ Bas sëñ Bas sëñ Bas moom sëñ Mountakha. waaw sëñ Bas waaw ñu ngi lay ziar daa mel ni far. waaw ah, bàyyi na jàmm. alhamdulilah alhamdulilah Mbacke Balla Mbacke. Mbacke. waaw na ngeen def ci liggéey bi. sant lu doon suñu yéene sax mooy ñëw bokk yéen ministre mhm. ndax euh, euh, jotaay bi dañ ko yitteel muy euh, liggéey boobu nga xam ne dañ ko naa mhm. ko dañoo yitteel loo ci ne la woon mhm. la ne sëriñ bi bi téere bi wax ceeg euh, borom daaru. Mhm. di ko laaj daa daa am na. xam naa borom daaru ko jafe boobu jafe mu ne ko moo ko amoon de moom ko bindee. Mhm. kon nag buñ demee ba ci jamono yii ñu ay mbokk jox xalaat ne eh, bëgg nañ ko taxawal bëgg bëgg sëñ tubaab yi. waaw kon kon ñan ne képp ku am chance rek danga ci bokk. képp ku am chance rek danga fexe bëgg sëñ tubaab ndax bëgg sëñ moom dana am. ginnaaw dana am nag fexe ba bokk ci. loolu dafa am solo. kon ñun ñu ngi ci am dégg bu baax a baax a baax ci bokk ci bokk ah, yéen itam ñu leen sant baax ci taxawaay boobu ngeen taxaw ko di ko yëgle ba ñëpp eh, eh, ndax loolu njëriñu ñëpp la waaw njëriñu ñëpp la. walaay walaay mbëkk. ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi leen ci sant baax a baax a baax ñëpp daal daal. jërëjëf mbëkk. ah suñu itam. ñoom bi nga xam ne xalaat nañ ko ñëw nañ ba ci moom bi ñu ñuy waxtaan tey sëriñ bi tey sëriñ bi dañ dégg lool ñan la ne la mu leen wax sax mooy li nga xam ne moom la taalibe di sàkku muy tawfeex sëriñ ñan la ne ñu am leen bu noppi waaw kon nag loolu loolu waaw kon kon daal ñu ngi sant boole nit ñi teew ko ci émission bi Euh, yëgle gi ngeen ko jëgal euh, taalibe yi ngir ngir ngir yéene ko yéen lu baax yéene ko ngeen leen yéene yu bokk liggéey bi sëñ bi rek moo tax yéen tee ko ngir yëgle ko waaw ndax euh, dëgg la li koy liggéey xëy nag kenn sax mënoon na ko def waaye nag mu yaatu ba taalibe sëñ Tuubaa yëpp ñëpp mën cee def dëgg la mm-hmm. Mbàkke jéem cee def seen dërëm la loolu dafa am mm-hmm. waaw ñu koy ñu ñu ñu di leen sant baax sant boo xam ne daal am na fu mu gàtt ba waaye amul fu mu yem. waaye yéen waaye ñu sant dañoo bañ li ñuy sant ñëpp dañoo bañ a tudd. dëgg waaye daal xam ne ñu ngi am mbégte baax a baax a baax si biir téere sax boo def sëriñ mi ngi ndax am na fu muy waxee ne wàcc xaan kitaabati masa yaa footaa loxo wa zaynan des la yaa footaa wax ne yow suñu borom maa ngi ko defal sa téere bii day may jëm ci yonante bi. day dund ak ay matériel yoo xam ne. day xeet sax wurus ya wurus wurus xale. waaw dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la wér na wér na. dafay xeet loolu. wér na kon ñu xam ne. Euh, neex nal na ne yéen a ji yi mu ne amoon ñu bind oor. Mm-hmm. kon kon kon bayit bi rek nga xam ne tudd na ci wurus yaa ko wurus yi nga xam ne mooy wurus yu gën a baax. Mm-hmm. sëriñ bi tudd na ko ci mm-hmm. kon dafay dëppoo ak. jóg gi taalibe dañoo dañoo dañoo bëgg a dañoo bëgg a dañoo bëgg a àggale jëkk sëñ Tuubaa hmm. kon daal xam naa ne maa ngi ñaan suñu borom may ñu ni ni ngeen ko bëggee ak ni ko hmm. ko sëriñ bi bëggee lépp ñu àggale sax jàmm ñu ngi jégalu nag ndax bëgg ñoo yàggal seen wax ji dafa am njëriñ lool te xam naa xëy na am ñu dëgg dëgg kon ñu baax a baax a baax teel a seetlu kàtt bi ak mboolem waa tax ñu ngi ñeen ñëpp xanaa ñu tudd sëriñ Mbay rek mboolem nga xam ne ñoo dee foofu ñun di ñaan suñu doon àggale yéen jërë ngeen def. kii nag xam nga mooy Cheikh Mouhamadoul Bachir. Mm-hmm. moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha. dégg ngeen li mu wax. Mm-hmm. waaye dafa am léegi jàngat bu ma dab. Mm-hmm. xaside gii. Serigne Touba wax ci maam Thierno Birahim. maa ngi woowaa Daaru. Ah, waaw nag ah, Daaru Musti. te dañoo am doom. muy sunu mbokk. di Nasir Samb. نشير تنودوم دي خالي بو باخ مومدو جان فدا ابراهيم سال شيخ سال واخر الله سيرن سال اغرك شير واخر سن كوسا استلو دمبارجا باسكو خاسي ديغي كات منو سوتي من وادر مستي كون جوجتنا واو sagam na te wala ndoo waa daanu ca teen ba masa ñi ci pind ba te wàcc ma daan naa la wóorul ku daan kaw ngay féete waaye njaay bu yàlla jaay jibril di propagande rasulaay di wanteer mahamadul hmm. mox ni njaay ma day gaaw a jar la man la yàlla di jaay rasulaay di wanteer jibril di ma xam nga ah, bi nga xamante waaw waaw bi nga xamante ah dégg nga nee na dem na ba ci xalifa ah, sëñ Bass Anta Ñaŋ xalifa maam eh, xalifa maam Thierno Birame woo alaaji Mafal Fall woo alaaji Mafal Fall mooy jëwriñ Mouhamadul Moukhtar te it nag Thierno demoon danaa la wax leen nga mën koo dégg gis nga alaaji Ndiouga Kébé bi mu ziyaaree barabu Sidna Aliin ci kaw fa wax na ko léegi nga yàlla man moo ma dimbali armée bi fee lañ ko doon joxe sëñ Muntaxa ah. ci arme bi. ma dem musul mel ni dafa dem Irak. Mhm. bi ma demee Irak. dem naa ci bàmmeelu Sidna Ali ak Sidi Abidin taawaal yi. Mhm. wante la ñu fa xooboon. alaaji Babacar Kébé andil na ko sëñ Touba waaye làmp baa nu jaaxal xanaa xamoo ni sëñ Xaadim lu sëñ Touba mujj bind mooy dikk. wax naa la ko wax naa la ko léegi. waaye loolu la Abdou yow dafa am yow. yow doo bokk ci ñii ñii yër. da bokk ci ñi yëg. dëgg la ndeysaan dëgg la. moom bokk nun ñi. dëgg déedéet bu lu ñu gisul jeex na waaye nun mun nañ ñi rek sëñ bi yegg si. dëgg la. kon <laughs> bi nga xamante ni yàlla dogal na Serigne Ba Babacar Kébé duñ ko duñ ko mën a fàtte. mukk euh, doomam it moo man doom ñi ndax. gis nga ah, ajaratu moom i Kébé. billaahi lazi baax lu muy def. yàlla rek tax moo ma jëkk jox vingt millions keroog bi euh, président bi ñuy ubbi jumaay Massalikul Jinaan ak baax waaw mosu jukki jukki mel noonu léegi daal li gën a wér Ablaye mm-hmm. mooy Serigne Touba daal da nga ni bi daa am turu mu tudd léegi daa am turu mu tudd alaaji Ablaye Ablaye May Peex mm. sëñ tubaa daa am turu mu tudd léegi mu doon mooy tàmbali sant yeggale lu mu tàmbali mu yegg. ñu ngi des it ñu ngi fi on verra tey barab bii nu ne nag sëriñ bi nee nañu néewu fii. moom de waxoon na menn mag ni ko xam nga nu ma tudd moom suñu coow mu ne ko mu ne ko buy dal muy dal laa tudd. Ah, léegi nag Ablaye xamu ne yow danaa la pikiir. waaw dama ni bi sëriñ bi taxawee laa wax ñu ni fii kat néewu fi. moo fi man kon fa mu nekk nag. moo fa man. dégg ko dégg naa la. sëñ ma sàmba la sëñ tubaa romb mu yëkkati xasida mu ni nii dàll li moom sëriñ bi romb sëñ ma sàmba sëñ ma sàmba xelmati ko rek bërëbu topp ci che sàmba cey sama wax ji ma sàmba sama xasida yi danaa teral ba noppi ma door jot ci yow ma sàmba bis pénc bu ak yonent bi teewee adduna to ñépp teew bu boobaa la ñuy xam man mi may kan. <laughs> ay su boobaa waay. kon bu ñu demee ba nag Ahmadou ni yéen nag li ma ci bëgg mooy murit bu ne. saa boo déggee ñu naan jullit yi nun ay murit lañu. ku bëgg doon murit bu jullit bu bëggee doon murit na ñëw doon murit comme ñun. ñun murit yi noo woote bis bi bëgg lépp lu waay man kon day ëpp di wax nga ndax ñun murit yi noo yor xaalis bi. oui noo yor xaalis bi dëgg la jumaay 22 milliards ci Ndakaaru gi. Ah, ci bu gàtt. nga yaakaar ni yàlla dafa yàlla xudduus la. gisoo boo tax ñetti tur yi ma lay wax. Hmm. yàlla bala ngaa xam ne mooy xudduus. sëñ hmm. Tuba laata mu tuddi ko xudduus yaa hmm. xudduus da ko tuddi dëkk tuddi ko doom. ndeysaan daarul xudduus. abdul xudduus door ko ni ko yaa xudduus. bi mu demee ba yàlla ni ko bu dul yow du ma wàcce jàmm ci adduna da ko ne yow mii nag dama lay tuddi dëkk bi tuddi ko daaru salaam. jël doom ji tudde ko Abdou Salaam Abdou wax yaa salaam ndeysaan moo tax kon nag ijal direct la salaamatan yi yaa salaam li awali li yaali fii daari salaam kon bu ñu demee ba yàlla dogal it nag wax dëgg nag laay ñu ni Ahmadou Mouhniyane la du ma téye micro bi lu yàggu mhm. man nag maay koo xamante ni ci lislaam man maa tudd sëñ am sëñ am waaw man ku ma ni am rek am ñëw ci yow ah loolu la yàlla dogal moom dëgg mm. ma bëgg na mm. ñun taalibe yi bala ngaa demati ci beneen télé Touba TV tëlewul dara. dëgg la. Touba TV tëlewul dara. ndeysaan maa ngi woon nag bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi ni ma waxoon nag ni sëriñ Moustapha Massamba yal na yàlla fayal na ko. waaye la ma waxoon sëriñ Mamour moo garaaw. Hmm. da ko ni cërub sëriñ Touba bi jox nga ma ko. cërub Cheikh bi jox ma ko. Hmm. cërub Soxna Aminta Amar jox nga ma ko. Hmm. cërub Mageel gi jox nga ma ko. jàppal ni nag sa mbir dana jag tey ak ëllëg. tey jii nag sëñ Maam Mor sëñ Massa Amar. Ah, waaw. waaw kon maa ngi ñaan nag jataay boobu yàlla na yàgg bàllay sa. amiin ci biir liggéey amiin amiin amiin dina wax nag ni la Ablaye bëgg laa tax gi nga sama bis bi di ñëw muy yow Ashura. Mm-hmm. ren dama la koy tudde uh-huh. ndax li ma ci bëgg a def xam nga man maay toog di yebbil sëñ Bamba man mm. génn góor mënuma dëgg la lislaam bi nu toog nii dëgg la mu ne di man na ma sëñ Tuubaa tëkkale gars yi rek ma dóor leen ñu daanu waaw ma loolu du jar sax mu jóg ma na waa gars yi rek dëgg la kon nag yàlla na ko yàlla na ko fekk ak jàmm ñun ñëpp ñu waajal Ahmadou Mouhniyane mm-hmm. haza zamanu zamanu xaalisam bu mu jot ah, illam yakun bu mu jot waxii la kii lu ko jot am naa léegi nag kon mu ngoo ko taalibe yëpp laa wax mhm. nañ ñëw nag ci biir liggéey bu tedd bii mhm. yaakaar ni nag bu fekkoonte ni sëñ Tuubaa dana la bindee ko or yow danga nga daal di wuti or bindee ko ko ah, waaw tey nag nan ko bokk bind dëgg la yomb dana yomb de buñ ko bokkee bind hmm. mu sotti ñaari xasida laa la wax wa innahu la kitaabul aziz keroog bi ko sëñ Tuubaa bindee Ablaay da ko ni dañuy sëñ ma sàmm dama koy gas suul day mokk tey rek léegi rek bàcc teg ci dënn bi rek ko hmm. foofee rek la sëñ tubaa joxe assurance mboolem ku ko yaakaar. barke sëñ Tuubaa. gisoo ko nag ci benn téere. te it nag Ablaye man li tax ma garaaw. armée bi fu ne yóbbu na ma dem naa daanaka ci juróom benn téeméeri dëkk. waaw ma wax loolu. benn téere gis nga fi ne yonent bi bu ëllëgee bu dekkee ba gaa yi ku ne la nga bind la nga waxoon nga waxaat ko. Mm. am na ñu lul wax. Mm. am na ñooñ ci juddug yonent bi wax nañ ci toj. la lu ne wax nañ ko. Mm. waaye Serigne tubaa képp. moom ngay tàmbali xasidaam ba mu yegg yonent bi tàmbali koo déglu ba mu jeex. ak kon nag maa ngi soññee. Ah. dëgg bëgg nag taalibe yëpp góor góorgóorlu ci. daa mel ni sax lii nu wax yàgg na compte yi léegi mu fees ni nu ko bëggee léegi nu amee ko ni oh, oh, yi waaw waaw waaw su ko defee nag mhm. maa ngi sant nag bu baax nag waa Massalikul Jinaan mhm. eh, góor ñi comme jigéen ñi mhm. aji gàmmu Jóob mi ngi may dégg moom it maa ngi koy soññ te bëgg naa nag comme suba la àllarba ñu def ko àllarbay sëriñ bi rek. képp na ku la nga am rek fekk mu Masary. ñu def ko ci biir liggéey bi muy Amadou Mouhniyane. mu jeex tàkk leen wax nag ni leen. maa ngi ñaanal nag mbokk gis nga jëmm ji laay maa ngi ñaan sama borom. amiin ci dara ji sëriñ Touba. barke xasida yi nga gudd fan. amiin amiin amiin bu wér. amiin dégg ndeysaan. amiin amiin soldaaru sëñ Bamba ko wax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf wallaay wallaay gëm naa ko. kon nag mi ngi noonu gaa yi ñu dégg ko noonu bëggoon naa daal biñ ne hmm. une femme un gramme d'or amoon na fi. ah amoon na fa Léna Fall Diagne ko defoon. une femme un gramme d'or léegi nag. une maam jaara une maam jaara un gramme d'or ñu bind Ahmadou Mouniyan une maam jaara un gramme d'or ginnaaw une femme un gramme d'or amoon na une maam jaara un gramme d'or ok laa bëgg ñun ñëpp ñu xamee ko noonu kon nag kàddu gaa ngi noonu léegi daal jigéen ñu ne jëlal ci sa armoire rek def ci sa armée góor gi na jële ci bankam def ci melam, ahmadou mox niye na ngoog xasida la go xamantene nak seigne touba da ma sa toog ba mu yàgg mu woo ni ñi ne ndax gi kenn ci yeen ku ne nako am keroog seigne ibrahima lo, bim ko indee sëñ tubaa dani hmm, ibrahima foo ko jële ndax de man dik na njaareem te kat ñenti del yoy seigne touba rek ko ma sa wax dem na dik na dëkk na dëkk len Euh, daa ni mm. mbokk yi doon laaj numéro yi ci kenn ku ne mën ngaa jël sa portable tàmbali mm-hmm. maam jaara faal pour mm-hmm. ñu xam numéro kii tur bi waaw 77 438 30 59 maam jaara faal maam jaara faal maam jaara faal 77 438 mm-hmm. 30 59 su ngeen xoolee numéro bi mu tolloon rek ngeen xam ne boobu maam jaar mm-hmm. muy 438 30 59 bi nga xamné moy numéro seigne fallu aaw moy 76 762 da ngeen koy xol ci écran bi seen télévision mm-hmm. di ngeen ko gis koy bu YouTube bi wala feneen tamit yéen a ngi koy la moom 762 66 41 et 726 waa 726 726. 26. 76. 726. 726 là. kon dañ koo le fil? waaw. ah, ah bii ba tey. Ah. Madame 762 baax 700 N'y a yëpp baax ah kon loolu kon ñaar 76 726. 66 41. Koso Tcham. 77 930 34.

mbind mi xaw a xaw a am ak kii jox ma écran baa ngi ne kon day mel ni faaw ñu faaw ñu def jox ko mu defaraat ko kon faaw ñu defaraat ko kon waaw jox ko jox ko mu defaraat ko fële ca ca biir waaw moom daal euh, euh, ki dafa amit lu gën a gaaw li gën a gaaw mooy ku woote léegi jokkoo ak ñun waaw kay loolu loolu moo gën a gaaw. waaw waaw ku mel ni si ñoom nañ ñu nañ ñu ubbi ligne bi. ku mën a ñëw ni waaw kay ku mën a ñëw fii bi ku dugg tey joxe jox ko ñun. ku mën a ñëw it fii waaw. ku ma ku ma ku mën a taal sa wata ñëwit tayit ñuy joxe waaw parce que wootee daan kontaan naar yooyu defarul dara déedéet defarul dara dëgg defarul dara kon yaakaar naa ne defe naa ne am na ñuy dugg de am na ñu tàmbali am nañu am nañu am nañu tàmbali te ragal naa suba da nga dégg lu xew ah alhamdulilah waaw ah, bu subaa ah. lii ma wax maag soldaar. maa tamit dëgg noonu la. ci Pape Ali Guèye. da nga dégg dara. maa la wax ndax lii bi may tudd Pape Ali Guèye booba ñëwagul. booba ñëwagul moom mu ñëw. mu ñëw confirmer ko indi li Cheikh Amadou Mountakha wax ci moom. wallaay wallaay ndeysaan. moo tax. ragal péeti day xëy wërsëg. dëgg la ku ñëwee dañ laa mhm. kon bis bii lii ku ci feeñ ci lu baax dootu nëbbu. léegi ku mën a jokkoo ñun wala nga mën a sa oto. ñëwal fekk ci nu. ku mën a indi rek. waaw xam nga alaaji ah. Serigne Touba liggéeyam. su bëggee dara. danoo war a miraas sunu bopp joxe ko loolooy ngor. dëgg la dëgg la jóg. Euh, sëñ Alsey Ndiaye mu baax ma. mu baax ma te Alsey Ndiaye. Mm-hmm. dafa wëq këram. génne lépp. jur géeg lépp la génne. wekki sàkket yi. génne njaboot gi génne dund gi. Mm-hmm. yeewi waale soxna yi teg génne yéreem lépp jóor ko sëñ Touba. genn basang la dese mu dal koy sango ngir sutural bopam dik ni seigne touba joy joxna naa la lépp bëggatuma dara moomatuma dara say al sëñ Njaay seigne touba ni ko waw léegi de gis na ni nga def moomatoo dara ma mom lepp delloo nga ko borom waye kurus gi la bëggon nga jël ko barké loko jox ko tur ni ko bo démé diko liggé mu ni ko gi sax duma ko mëna ndax dara seigne bi ni sama ndigal la démal waye ba mu démé rek nee na diggante beeg weer yi la mu yóbbu woon am na ko fukki yoon ak juróom ndax sëñ Touba noonu lay jëflanteeg ma kon waruñu di denc dara bu sëñ Touba soxla dëgg la woote naan kontaan naag li ngeen wax neex na déedéet loolu indiw fi jumaa ji dëgg la joxe rek loolu jëlewul raay bi njaareem indi ko Touba loolu defarul masaalikul janaan li nu moom sëñ Touba ko moom dëgg li ñuy denc ci banque yi sëñ Touba ko moom te ko ci dee sëñ Touba ngay bëgg mu tinu la ndax jëfaloo dara yàlla jëfaloo dara yàlla lu mu la tànne boole la ciy taalibeem mhm. te wax nga ko léegi nee na ñi aju ci man ñoo gën ñu dul moom ci listam ba adduna inna allazina taalaqoo biya faaqoo xayrahum ila yawmil qiyaama ñi aju ci man ah, ñoo gën ñu dul ñoom ba addunay tukki sëñ waxi sëñ Tuubaa la mhm. dellu wax ni ñaanoon naa yàlla sama boroom man sëñ Tuubaa ci yàlla def ma murit ñaan naa yàlla ni ko damaa bëgg a nekk murit ngir li nga dencal am murit mhm. nee na yàlla ni ma déedéet du def murit yow sëñ Tuubaa mm. dama lay def sëriñu murit yi. ndeysaan. du la def murit dama lay def sëriñu murit yi. mu door koo bind ni tamanantu miraaran mm-hmm. an yajalani llaahu muridan fa abaa wa jaalani cheikhal muridin kon lan moo nu def murid noonu mm-hmm. tànn boobu munu tànn nag war na noo gore ba bu soxlaa ñu taxaw ci kon toog naan kontaan naag bég naag li ngeen fi wax amul solo mm-hmm. kuy woote neel nangam laay barkeloo numéro yaa ngi ñu affiché dëgg la xeebu nu téeméer xeebu nu ñaar téeméer xeebu nu junni xeebu nu million barkelu leen ci liggéey bi xam nga dafa am lu bëgg a joxe waaw dafa li xew mooy. waaw Serigne Touba rek a xew. day xaw rek fi mu jaar fële la waaw ndaxte. fii réew mi toll. kii ñuy déglu muy kenn képp di Cheikh Mamadou Mountakha. Ablaye Ablaye. Mbakke Mbakke noo noo ngi ñaan mu yàgg lool ci wér. te xasida gi dañ ko bëgg a jébbal. waaw te dañ koo bëgg a bind ci lu gaaw. wax naa ne buñ ko bindee na or bi des. boole ko moom jëbbal ñu boole moom jëbbal sëriñ bi lu yëngu lu ne la ko yëgal kopp doole dëgg la te murit warta denc dara dëgg la na denc murit buy denc na denc rek sëñ Bamba dëgg la boo ànd ak bi lu baax luy jaay waxaale da jënd moo tax lii li nu man ak li ñuy jëf nga xool jëmm ji mm. Cheikh Mouhamadou Mountakha yarab bii ak li mu nu

kon buñ demee ba nga xamante ni yàlla dogal na sëriñ bi. waaw li nga ne jaayante. Mm-hmm. gis nga saa boo xamante ni yàlla dogal na dese nga dara rek. jaayanteegoo. dëgg la Sina Ousmane la taxoon yonent bi toog gee ba fajar naan yàlla bul fàtte Ousmane. Hmm. Hmm. baata nabiin ila fajirin yaroomu loho hmm. ridan min allahi isa taflilun kubaaru. Ah, waaw waaw kay bu fi xaale nabi Ousmane yaswahu fii sabina alfa nokulu aqwa naara dab na. njabootu Sëñ Tuubaa. Masalik sept ans. jumaa ja jumaay Tuubaa. baa ngi ñëw ñaari sooro yi. xoolal Seydina Seydina Aboubacar Saddiq. ah Saddiq. yenent bi dani uh-huh. ku nek wan ma ni nga e ma gëme ci salam sahaba yi di wëq hmm. Seydina Aboubacar Sadiq nañ xol li ma am ci kër uh-huh. xol li ma am ci geleem uh-huh. nañ genn samay takkaay nañ genn yere ñu wëq lepp ba mu jeex mu dese benn mbàjj mu xonku kep kot ñepp wara ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu tarax laa yoo mbàjj mi ngir ngir sutural bopam yor benn kan dukat wuti ci jotaay bi xaw am kersa ta dem ndax li mu def mu bëgg a delluwaat ginnaaw yàlla gëdd jibril alayhi salaam ne ko defal tëni aboubacar te dem wuy jël ma moustapha jibril def même tëneem dikk ci yanant bi yanant bi ne ko waaw jibril tëni bi nga indi tey bett na ma lii lu mu doon mu ne ko xoolal ci sama ginnaaw sa waa ji wëq li mu yoroon lépp jox la ko xaw a am kersa ci tëneem bi mu yor tey muy benn mbalaan rek bu mu sàngoo suñu borom ni yéen malaaka yëpp def leen tëni aboubacar wala ma dégradé leen joxe ci la lépp nekk. joxe ci la lépp nekk. ak it nag daa am loo xamante ni ko sóoraale. Ah. gis nga bi Cheikh Moustapha jël raay bi yóbbu njaaree mhm. bi. bàyyi nee na tubaab bi ne euh, mille cinq cent murit mhm. ñu di leen fay par jour xam nga murit yi defar. Mhm. bàyyi ba ñu fay leen rek ñu <laughs> rocc ko ni sëñ bi addi si. ñu lañ fay bi waaw kon bu ñu demee ba nga xamante ni. Oh. waxuma la DN Dakar Niger. Ablaye Bichri mhm. waxuma la benn tubaab bu mës a liggéeyub raay amul mhm. nga jëlub raay ci port yóbbu ci usine moo mës a am dëgg la waaye jëlee <laughs> raay yóbbu ko ci néegub yàlla ah. Cheikh Mouhamadou Moustapha ko defoon dootaa mukk ci am waaye nag kaay Kandjel de un mètre la waaw mm. ah, waaw fa la ñu yóbbu woon Cheikh bi mm-hmm. Massalikul Jinaan soixante cinq mille mètres carré la ah, waaw ubbi ko ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba waaw léegi daal li am solo mooy. waaw gaaw rek. na gaa yi gaaw. rek jëkkante ak waxtu wi. ndax lii lii ñu nu may fii euh, euh, euh, te jëwriñ defal lu ko. li ñu ci bëgg. mooy li ñu fi tax a toog mu sotti. mu sotti waaw. li ñu fi tax toog nag. li koy sottalee. mooy lu waayam indi ko. ku mën a taal sa waxta ñëw fekk suñu fi waaw daal di joxe rek ku mën a woote ni joxe naa nangam am na ku ne Italie nee na dafa bëgg a barkeelu mais numéro yëpp a ñu jox ko yeneen numéro waaw mu ne dafa bëgg a barkeelu jotoon naa ko jotoon naa ko wax gi na la ko wax rek numéro yi na la ko wax rek numéro yi moo tuuti suñu lay na la ko wax rek waaw da ngeen da ngeen lu numéro yu bari tooñ ngeen léegi nag numéro yi fees na ñëw leen waaw kii dina des waaw na la ko jox bi des 400 jox ko mu envoyé ko par message. waaw 400 77. 408. 400. 408 waaw. waaw. 22 99 soxna Adja Seynabou Joxaane nee neena Adja Seydou bu joxaane. waaw suba bu soob yàlla dina ñëw. na ma fekk Masalik rek. waaw mu ak ñi mu àndal mm. nag kaay. Mm. Aliou Ngodi joxaane maamam it moo mas a man ci kër Serigne Bassirou. dëgg da ni dana ñëw maa ngi leen di ma Masalik boo ñëwee nga bas sa carnet. <laughs> incha allah jeex na jeex na jeex na bu soob yàlla. Mm. nii rek. gars ngi woote. waaw ñu ngi woote kooku fees na waxoon naa leen ko yéen a nu tooñ. waaw ah, wallaahi ndeysaan yéen a nu tooñ. wallaahi xajuñ ci benn ko benn ah. da ngay wax 408. waaw nañ jël 408 bi 477. wax ko ma dégg. sëñ ah, Abdou Mbacke mi ngi dugal am mi ngi mi ngi am lu mu dugal sama téléphone da nga koy xool. 77 408 22 99. waaw Serigne mu Serigne mu Serigne Koso Asulo. 22 98 xoolal sëñ Moustapha laaj Baara barki démb. ah kaay nag yaa ngi door a ñëw nag barki démb moom moo moo saadix bi moo sax di wax jotaay bi waaw waaw. nan déglante. bisimilah. salaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi leen nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay bu baax. ndongali Alioune Badara Diagne la Touba Kër Ndiaye Lo. ah Alioune Badara Diagne Touba Kër Ndiaye Lo. waaw bisimilah waaw waaw waaw waaw doon laajte rek ban numéro mooy numéro wéer bi ndax bëgg nañoo feeñal suñu yéene. Mhm. waaye xam ne ban numéro mooy numéro. 77 77. waaw 408. waaw. 22. 22. 99. 99. waaw ku ñuy wax Alassane Diouf. Alassane Diouf. 77 408. 77 408 22 99. waaw kay jërëjëf bëgg nañ lool wax dëgg yàlla. Mhm. di ñaan lépp àgg ba ci ba ci bàttee suñu tuwaar. amiin jërëjëf. waaw mhm. ah, dégg na lool nag. jërëjëf jërëjëf si daal mu doon ñaan nag murid yi. Mhm. waaw dama bëgg màggal gi. Mhm. lépp lu ñuy coordonné. ñu coordonné ko ak euh, numéro 75. parce que kenn ku nekk la nga moom dañ ciy sot domp sax ci sot la bokk. waaw connexion yeeg. Euh, euh, appel yeeg lépp lu ñuy coordonné ci màggal gi nañu jël promobile barkeeloo ko ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ndax hmm. promobile suñu mbokk taalibe la te suñu mbokk taalibe moo ko moom domp nag ci sot la bokk jërëjëf ñun ay murit la nit boo nekkee ci mbir da nga ciy fees dell man de fi mu toll nii sama promo bi laay wootee lépp lu may woote di ci côté ne màggal gi. waaw góor ngir ngir barkeeloo ko ngir jëmbi Sëñ Tuubaa xam naa lu ko génnee ci ci ci liggéey Sëñ Tuubaa lay duggaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah. daa mel ni nag waa jooju soñu na ñëpp de. waaw soñu na ñëpp waaye 75 graw. 75 hmm, graw mooy lan. mooy luhum. mooy luhum. te moom la Ahmadou dund. laam 30 la. dëgg la waaw Kabir 5 la biim 40 la 75 la ngoog. 75 la ngoog xanaa xamu ne wakkaan a xan ñaari 75 la muy 150 béy di. ndeysaan ma loolu. ma ne moom la Ahmadou dund. muy 75 moom la Cheikh Rafal dund. muy 75 moom la Soxna May dund. muy 75 moom la sëñ Abdoulaye dund. muy 75 moom la sëñ Sooy bu muy 75 moom la sëñ Abdoul Khadir dund. la di yow kooku kan la dama dama euh, bëgg. Hmm. am ñu taal seen oto ñoom. waaw nag waaw nag. waaw nag sëñ Tuba war na toll nañu foofu. Hmm. taalal a waaw bañ bañ gis ko nag. waaw hmm. kon damaa bëgg am na ñoo xam nii ku ci nekk la nga def sëriñ bee la ko jox. taalal sa oto ñu fekk. waaw rek te ah. am na jàmbaari sëñ Bamba. Ah. yu ñuy wax Abdoulaye dafa ma nga waaye mi ngi nuy dégg mi ngi jàkkaarloog nun na nga ni daaw bi màggal gi jub see dafa ma ni ma li may sëkke Touba oto yi may jënd sere kilomètre lay doon laa ilaaha illallaah zéro kilomètre laa koy sëkke fukki fan ci laa ko bëgg ay zéro kilomètre laa jënd booba ñëwul moom de ma nga Touba yi zéro kilomètre yi laay jënd nañ fekk Touba ak benn yi ñu sëkkal ma ko waaye sëñ bi xool ndax li ma yor fii sëñ Bamba ma ko jox la ma yor Dakar sëñ Touba ma ko jox barke sëñ Touba te sëñ muy oh! Abdoulaye Sylla moom it xam naa mi may dégg moom it woo nañu tam Matar Sëy la fraîche waaw moom it moom it dibaay miin na ko miin na teraangaam sëñ Touba rek lay dund lu mu yor jox ko sëñ Touba ak nag ñu ngi koy woo Matar Sëy la fraîche Abdoulaye Dia Abdoulaye Dia Seniko ah, ah kay nag ah Seniko saahibul Xuraan bëgg wax jàmbaar ah. nag ki nga xamante ma ah même ñu wol Ablaye Dia. Ah, Ablaye Dia sëni ko Serigne Seck nag doo ko bàyyi fenn. waaye da am dañ koy def nànk-nànk. Ah, Ablaye Dia. maamam waxoon bi ñuy dem Makka. Ah. ci 1928. Alaaji Ibrahima bi sëñ Fallou ne garanti naa ru yi kenn du faatu. sëñ Mbacke Bousso ni lu waaye xamut bu ma maa koy koy wax. Hmm. sëñ Gaawaan ku sëgg waxaale boo sëggee ma fay. Hmm. maamam nag sëñ Ibrahima Dia ku tële maa lay boot. ah ku tële maa lay boot. ah kon mu ngoog. kon nag ñàkk télé googu nag moo dal Ablaye Dia muy saayibul Xuraan waaw ah, nga xamante ni nag kooku moom mooy le sénégalais averti kon ñu koy woo wax nga dëgg ah, Ablaye Mbaye li nga wax wax nga dëgg tarima alxuraan deux cent millions waaw léegi itam mhm. euh, Serigne Seck waaw Serigne Seck xasida mhm. moom lii alal la ma mhm. waaw ndax Serigne Seck it ku ko mën ci xasida yi amut dëgg la moo koy bindulu ku raw ci xasida yi mu joxe prix mbindum oro gi nag prix baa ngi daa nga fay prix waaye sëriñ Seck prix baa ngi wax nga dëgg de yi nga daa joxe yow sëriñ Seck prix baa ngi xasida gi ñu bëgg a binde or jëbbal Cheikh Mouhamadul Mountakha yow it baa ngi wool cubb gay ca mbuur cubb gay même cubb gay jàmbaar yi suñ tubaa ji nga xam ni hmm. moom bu safar jotee ay millions rek lay joxe dëgg la hmm. waaw moom mooy takk oto yi di teg oto yi di maye moom mooy takk xar yi di joxe ci Tabaski dëgg la sëñ Touba rek a ko ñor bi sëñ Abdul Karim bi sëñ Cubb Gueye nu ngi koy woo di asaayit bii xasida gi nu war a bindal sëñ ah, Moussa ab sëriñam nag moo bindoon Taysirul Asir sëriñ Abdul Karim waaw waaye nag daa am lu sëñ Touba bind xalimaam gaa garaaw gis nga bu la yuutalee rek mu nuru saw tur rek saye kitaabul karimu min ah, waaw waaw di woo itam waaw euh, doomu Alaaji Taal waaw waaw waaw sëñ Cheikh Tall. sëñ Cheikh Tall. waaw rëy jëf Tall day murid sadix. waaw baayam tuddoon rëy jëf Tall. waaw waaw. muy jàmbaar. bildin bii mu tabax baayam la ko tudde tey taalibe Serigne Touba. mar ba yee jëm ci jumaa jëlu ci bari. jaar na ci loxoom. moom it ñu ngi koy woo. sëñ bi limaam xëjul ci xasida gi déedéet waaye dañuy jukkat wool Baara gay ba ah. Baara Gaye Clean Oil dëgg la woo ko waaw waaw sëñ Tuubaa rek ñor te daa am yéene ci xasaayid yi Baara Gueye Clean Oil ngi lay woo waaw jàmbaar la waaw sang bi nu déglu la waaw waaw ah. kuréelu jeysul yi ah. ginnaaw sax bi ma ñëwee nuyuwuma hmm. ci kuréelu jeysul yi déet balaa balaa balaa kii euh, balaa balaa gaa si ngi ñu ngi kontaan bu baax waaw waaw déglu déglu yàlla ci euh, jataa bi ni mu demee hmm. maanaam nit ñi moom waxuma la sax euh, bëgg dugal seenu ñax hmm. waaye ñu ci bari moom lañoo tàggook seen sago ndax jataay bi yëg nañ ne ay murit a fi daje mhm. yëgaat nañ sëñ Tuubaa it ci jataay bi nu mu demee euh, numéro yi nu joxe woon it wax nañ ne ñi nga xam ne ñoo toog ci seeni télévision nañ insister rek dugal bu ngeen dugal rek dana dem mhm. daa mel ni def nañ ci ak jàppandal mhm. waaw bu ngeen insister fi ne rek ci numéro yi ngeen di seen dana dem tur yi nag dinaa leen ko jox nii bi may njëkk a wax mooy bu soxna jaara muy 77 438. Hein? Bon, moi, c'est numéro. 77 438 30 59. 438 30 59. 438 30 59 bon moi bu soxna diara Fall. bu seigne Fallou 76 762 66 41 76 762 66 41

49 76 boobu amul weef ko amul weef amul orange money free money ku bëgg a dugal free money bii mooy free money bi Alassane Diouf la 76 341 55 49 allo am na ku ne ci ligne bi de allo maaleykum salaam waaw. soxna Alia Fatim Mbacke Niass. waaw waaw woote waaw. dafa plafonné. dafa plafonné. kon jël leen 408. jëlal 77 léegi daal li gën a wér. 408 22 99. jëlal 408 bi. 408 bi moo plafonné. waaw léegi. ah plafonné kon kon da ngay insisté rek nee nañ soo insisté mu dugg. ne continuer rek. Ah. boobu wéef la wala. orange am na orange money. nee na am na orange money. am na wéef. muy 408 bi orange money bi demal wéef lambal wéef. la wax maam jaar yow. 60 xaaral. ñu taxawal ñu jox la beneen xaaral ñu jox la beneen taxawal ñu jox la Jaara. Soxna Jaara. 76. 530. 500. 530 bindal soxna si. 530. 30. 76 530 ñaari yoon 30 la waaw 76 530 30 60. orange money ah. waaw waaw na orange money. ndax am na weef. ndax waaw la wave la wave. toogal tuuti. lépp laa lay jox. yéen tey bu ngeen indi ñetti numéro. waaw kooku xëy waxoon nañ ko waxoon naa ko euh, jëwriñ. numéro yi mi ngi jàll kon numéro yi nee nañ bu ngeen insister dana jàll yaakaar naa dañ ci def ak yombal waaw waaw kon léegi soxna bu soxna jaara lañ mujj joxe léegi 76 630 30 60 boobu moom yomb naa kii. 630 30 60 waaw ku ku woote ku woote direct jot nii nu joxe naa nangam. koo xam ne loolu gënoon a a gaaw koo xam ne kii nag mën nga wax si ñu lay mbaa sëñ Ablaye Diop Bichri mbaa sëñ jërëjëf sëñ Touba ñi toog ci plateau bi waaw ku ci xam nit xam numéro téléphone am mën nga ko woo téléphone waaw daan ne man la diw sàngam maa ngi joxe nangam maa ngi joxe nangam waaw bu defee ñu wax ko ci ñu wax ko fii léegi su subaa boo ko joxee insha allah danañ ko tàbbal ndax loolu moom benn lënt amu ci waaw noonu moom moo gën waaw sëñ bi bismillah barke Moussa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mm-hmm. ñu ngi ziare Serigne Mountakha Mbacké xelu gen moo yor nga xam ne mooy borom jotaay bi mm-hmm. di ziare Serigne Bassirou moom suñu Abdou moom noonu lañ koy noonu lañ koy noonu lañ koy tuddee saa su ne waaw jëriñ ji nga xam ne mooy suñu jëriñ ca Masalikul Jinaan xam ne sëñ Mbacké yu fay nga xam ne fii ñuy waxtaanee nii waaleykum salaam ah, am deux trois am ko allo asalaamaaleykum salaam sëñ bi na ngeen def sant yàlla ak ndonga lu lu xeebu day mooy woote bismillah euh, di wootee Touba gi tudd Khadim Ndiaye Khadim Ndiaye Ahmadou Bamba Ndiaye ñu naan ko rafet juma. waaw. waaw di soppe si Ablaye Diop moom di soppe si ak sa sàmm. jërëjëf waaw man sax jot na maa gis ci numéro bi ci kaw numéro ko sa jàmm boobu. jot jot naa jot naa dugal li ma dugal nag dama koy dagaane dama koy dama koy def loo xam ne si dama cee yóbbaale képp koo xam ne néew doole nga te yéen a ngi. ndeysaan. ndax Sëñ Tuubaa man dama ni ñun ñun ñun lu dara. ndax danoo mhm. lebal million ñu doon dañ pour fay ko. bi amee junni ñëw di ko yëpp mu jox ñu ñaari million doole ñu fukki million ba ci ak amatul lu koy fayee loolu làmb yëpp a ko. Mhm. wallaay ndeysaan. kon Sëñ Tuubaa rek la mhm. rawatina ma Sëñ Tuubaa. ndeysaan. te te. ndeysaan kooku foofu la yem lépp àgg na. waaw ñu daal bàq bàq bu tooy la. waaw yoonu jooy ah, joxe. waaw <laughs> sëñ Tuubaa moo waxoon ne. waaw waaw sëñ tubaa moo waxoon ne. xasida gi ñu fi tax a daje. Ah. moo waxoon ne bi mu koy bind ci jaareem su ma amoon ndax daay oor am na. ñu ne ko Mbàkke soo amee ak séegu fi. mu ne su ma amoon day moom laa bind sama xasida gi. ñu ne nag mébétam sëriñ Tuubaa mooma. Hmm. lanu yëg du laaxan mukk ci àdduna ginnaaw na ko bafi mooy mébétam jumaa ji Cheikh Moustapha ak Cheikh Mohamed Fadal ñëw nañ defar ko ba mu jeex tàkk lii nag mébétam sëñ tubaa la du jëfi kenn Cheikh Mouhamadoul mun nag nee na jëf ci moy tawfex de ngeen ni ko seigne basirou doomam waxee léegi tabbi na ñëpp di ko dégg Moustapha mom seigne Alaaji bara barke dem démb mi ngi koy yëgal ay nit le maire de Mbacke le maire de Mbacke euh, euh, Abdou Mbacke Ndaw Abdou Mbacke Ndaw wallahi ak ak mebeta mu rëy ma nee damay jëlal sama mam ravance wallahi lu luñ ko xañon fi rek na ko jox deug la le loolu lu rafet la lu rafet la am am sha allah yalla dimbalé ko bu ku ñuy wax seigne Ibrahima Fall ca jander waaw yobante na ma 30000 nee na moo ko barkeloo. waaw sëñ Ibrahima Fall ca Jandeer. ñi toog ci plateau Ibrahima Fall. Touba Foral ca Jandeer mu ngi seetaan émission bi. soxna bi na ma 30 000 ko barkeloo. waaw waaw soxna maam bi mën naa am kuy jël kii di bind yooyu. su ko defee bu subaa sëñ Ablaye dana ko retiré ah, jox leen kon képp koo xam ne kii xam nga ko. sëñ Ibrahima Fall. am na ku bi allo Jandeer bisimilah. allo allo waaw. man la Yacine. Yacine. dëkk Ngumba Ngeewu sëtu Thierno Fall. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay Yacine ana waa Ngumba. waaleykum salaam ñu ngi bu baax. alhamdulilah. jàmm xaalis bi laa bëggoon a. mu ni numéro xaalis bi. waaw numéro wéer wax ko fii waaw. waaw bindal jox la. waaw. 76. 75. 76. 76. waaw. waaw. 530. 530. 30. 530 waaw. 30. 30. 60. 60. waaw. waaw Yacine Yacine defal foofu te wax waa Ngumba gépp ñu génn. waaw. waaw incha allah. waaw waaw ak Ndiaye. bu ñuy wax sëñ Jiili Luum sëñ Jiili Luum. waaw ca toobaa dugal na 3000 francs waaw moo ko barkeloo sëñ Jiili Luum. waaw loolu de moom loolu de moom solution kon kon suñu xarit bu njëkk kon Adja Adja Adja Mbaye ak Ndiaye. ñu ngi koy woo moom itam ndax taalibe bi sëriñ la te macha allah yàlla dimbali na ko. Mhm. ak Adja Fatou mbake eh, nias Adja Seynabou Diokhani mm-hmm. Adja nday ñepp nenañ suba nee dina ñew inshallah eh, Allah nak Mbacké nak nias mom lu ñuy néew woote Serigne Touba ku dik fekk ci ku dem bàyyi ko ci mm. waaw moom la serigne Bara ne xarit sénal ku lu murit dem seen serigne muntaha Porokhane dugu Kaolack ñu ne ko foo mu ni damay jaar ci fat mbak nuyu ko ba muy and ak man nekkuma serigne mamba koo koy fa mm-hmm. koo koy Fatou Mbacké mm-hmm. bi mu defé lolou sang bi nga ni parce que Maxtaar Dieng mi nga xam ne moo jiite kuréel Dijon Massalikul Jinaan ànd ak xam ne mooy jëwriñu kuréel bi nga xam ne sëriñ bi moom bi mu départ rek dañu waxoon liggéey bi mooy sëñ doomu sëñ Muntaxa sëñ Bas ànd ak sëñ Xaadim mi ci weeru koor bi nga xam ne weeru bi li sëñ Muntaxa doon def Tuubaa lañ doon def Masalik ci njiitu sëñ Mbàkke yu fay Baye Modou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare yow yaay suñu baay yaay suñu lépp yaay suñu kilifa ñu lay ziare a baax Baye Ablaye Mbaye ñu ngi ñi fi nekk ñëpp kon ñu nekk ñëpp ci plateau bi xam naa ñetti ñooñu rek comme ñooy kilifa yi. Ah, ñu jaar ah Maama danaa la doon am na ko mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. woote nii ku ñu wax Momar loo ca Barcelone. joxeegul nag waaye nee na mille dina ko barkeloo. waaw ko joxee rek ma dugal ko waaw. Momar Lo ci Barcelone nee na dina joxe 50000. message am a ngi nii. yéen wut kayit di bind waaw da ngeen wut kayit di bind. waaw ñu ñu ziarewaat rek sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadre jàmbaar ji nga xam ne moom moom moom. indil kayit ma bind affaire yi moom amuñu si moom sago sëñ Bas. waaw waaw amuñu si moom sago. am na loo xam ne dinaa ko dinaa ko nettali ndax keroog fa la ma fekk. mooy keroog loolu mu doon jox ca ca tabax si la tabax si la xam naa su ma waxee di nga xam ne may wax maa ngi yow fa bokk nekk nga xam ne moom ku am cër la ci yoon bi sëñ Tuubaa dénk ko yoon bi daanaka mooy kàddu yoon bi kon ñu ngi koy jaare jaare sëñ Basiru moom si sëñ Mbàkke koy jël waaw sëñ bi da nga def ba jàmm nga am bismillah allo ba jàmm nga am da ngeen def ndongo ndongo lu ñuy wax Alioune Sarr la Alioune Sarr Alioune Sarr dëkk Ngën Sarr waaw Alioune Sarr dëkk Mbaye Sarr Sénégal Tour. dëkk Ngën Sarr. waaw Ngën Sarr Ngën Sarr waaw. jotaay bi mori mori na lool mori na la ñu ngi leen di ziar baax a baax. jërëjëf jërëjëf Sarr. waaw dinaa joxe deux cent mille incha allah bu subaa jàmm. deux cent deux cent laa wax Ablaye Mbaye deux deux. cent a ah, tànn. deux cent. <laughs> sama yaram a tànn. <laughs> jërëjëf ñu ngi lay sant. deux cent téléphone bi. Mbaye Sarr waaw dëkk ngeen ñu ngi wootam sëñ Mbaye Sarr Sénégal la yóbbante ci sëñ Mbaye Sarr dinaa ah, sama soppe la semaine bu jot ma déggante moom téléphone sëñ Mbaye Sarr Sénégal tour nu koy woo ku baax la sax Ablaye Ablaye Ablaye naa la fekk mas naa la fekk mas naa di ko ginaan ñu waxtaan foofu waxtaan bu neex dëgg la waaw wax nga dëgg sëñ Aliou waaw am na jërëjëf jërëjëf si Aliou kon baax na bu am naa la bu baax sax bu ko waaw ma koy indi fan laa koy indi na waaw képp ku bëgg a ñëw barab bi nga ñëw suba keneen ku ko déggit te amoo kenn numéro téléphone am ñëwal Masaalikul Jinaan fekk ñu fa suba waaw léegi nag continuer barke boobu ñu tudd suñu jàmbaar ji rek suñu ah. bàkk yu nga xam ne léegi rek la fa jóge ak say Baye Modou Mbaye Sam mii ñoo fa nekkoon ñu xool jumaa ji nga xam ne moom léppam Serigne Touba la ndax tey ku la xam ne da doon taw tey waaye yitteem yëpp jumaa ji la sëñ Mbàkke yu kon ñu ngi rek la xam ne sëñ mm. rek la barki démb rek ci mii am ndigal lu mu joxaat ci liggéeyu sëñ Touba bii nga xam ne mooy xasida yi mm. kon sëñ Mbàkke yu ñu ngi la ciy woo bu baax a baax ci liggéey sëñ Touba bi mm. di woo suñu kilifa suñu xarit suñu mooy sëñ Mbàkke yu di ko ci woo bu baax a baax di woo ma dikkee ma dikkee ña waaw waaw ñu ngi koy woo ci liggéey sëñ Tuubaa bi ndax ma dikkee waaw ma dikkee la ku bëgg sëñ Tuubaa la ku mën a joxe ku mën a joxe or tamit am na ko ne ci ligne bi allo bismillah waaw waaw waaw ma ne saa toor jandeer noo tudd yow Mariatou Sarr Tóor Jandeer. Mariatou Mariatou Sarr Tóor Jandeer sa numéro téléphone. 537. 537. 42 43. 42 43 42 43. 50 000. Mariatou Tóor Jandeer. waxa waxaatal numéro bi. 537 42 43. xëy na. 500 numéro bi. 500. allo. allo. jox leen 500 allo 500. nga ni sa numéro. 537. waaw. 77. 537. 42 43. waaw baax na bind naa ko. 50 000. jërëjëf soxna Marietu ak waa Tool Jëndee. soxna xam nga tollu nañ nag ci déglunte. dugg lan la. Mm-hmm. waaw xam ñiy woote la. Mm-hmm. xam li ñuy joxe lan la. Mm-hmm. lu benn benn ko Wow, am solo Wow, wow, lu wow, wow, wow, wow, wow, ak lu wow, wow, lay wow, ak lu wow, wow, wow, am na ko wow, wow, bismillah wow, wow, bismillah wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, bu wow, wow, wow, Wow. Wow. wow, wow, nangu ziar wow, wow, wow, wow, la wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, bismillah wow, wow, ñu wow, ñu wow, wow, wow, baax wow, Sebelum yàlla suñu borom guddal seen fan yéen ñëpp. amin amin amin jaxna ñu ñaanal xalifa général yàlla may ko gudd fan wànd wér amin amin amin ah yokk ay naalam amin amin yàlla yàlla suturaal ko defal ko tawfiq amin amin ko seen ngërëmu sëriñ Tuuba amin waaw waaw ñu de luñ barkeeloo bëriwut ma waaw ñu bëgg barkeeloo waaw barkeeloo ne am ñeenti téeméer rek yokk ay rek ma ma jóg daarul ne liggéey daaw mi ngi yónni doomu ñeent fukki junni wax bi day xeeb bu baax a baax. ah, ah ma ne. Mbacke sa sa numéro téléphone lan la. sama numéro téléphone. waaw. bu ma leen wooyee nii 76 la. 76 déedéet wax ñu ko rek loolu ci télé bi la wax ko ma dégg. 76. 76. 564. 564. waaw. 76. waaw. 75 10. 75 10. 75 10. 75 10 75 76. 76 10 waaw. waaw waaye bu ma dugal bu ma dugal deux bi moom 631 la. waaw nee na dina dugal 2500. dëgg léegi mu jub ma doon wax léegi. dina dugal 50 ki ma doon wax léegi. sëñ Mat Diop Daaru. Mat Diop borom Daaru Musti rek la nee na ma foofu maa ngi yónni sama doom ñeent fukki junni yi. waaw mu indil la ko foofa. waxan dëgg. man li ma soxla woon mooy taal sa oto. indi lu xaalis bi nu jël ko. rek ba nga xam ne dañu doon xaalis. murid yi mën nañ ko. waaw am nañ ko. waaw li ñuy denc sëñ bee ko moom. waaw damaa bëgg ñu indi xaalis bi. waaw am na koy wax de. bisimilah mm. ñëwal. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di ziar bu baax sëñ bi. waaw waaw numéro web bi ngeen joxe woon noonu 530. waaw. waaw boobu we boobu weef bi la. waaw. waaw dugal naa sama waa waaw. waaw baax na. waaw góor. continué leen. waaw bisimilah. olu xasida rek la ñuy. ku ñuy euh, ku ñuy wax Maram Ndiaye. Mm-hmm. ca daayira firqa rakk la ci man mu nga ca Géejawaay. Mm-hmm. joxe na mille francs Mm. ku ñuy wax Jili Loum mm. ca Touba jox na ba mille francs mm. ku ñuy wax Ibrahima Fall ca Jandeer joxe na 30000 Momar Lo ci Barcelone envoyé na 50000 am ku ñuy wax Ibne Amar dëkk ca Pikine digge na 5000 nee suba la koy jox allo allo kon loolu leer am na ku ne ci ligne waaleykum salaam Baye Ablaye waaw waaw la yàlla na yàlla def yoru ziar mbaa yaa ngi ci jàmm sam sëñ Abdou waaw ci Touba Bayax la waaw Touba Bayax. Modou Modou Ndiaye waaw. dëgg la Bayax waaw. waaw jox ma numéro eh, kii bu subaa ma dugal leen ci 10 000 francs. bisimilah jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Modou boo ko dugalee rek nga wax ko. waaw ma numéro ñaari junni. dëgg la. mu euh, na am na ko dugal ci am na ko may laaj ndax am naa wéef borom 584 53 51 waaw. allo soo dugalee léegi danaa ko wax ci jataay bi. waaw waaw sëñ Bas se kilifa tamit nee na. Ah. ku bëgg a joxe or. Ah. su la neexee indil ndax or rek lañuy ñuy jënd. waaw waaw waaw. waaw. waaw benn ndongo bu nekk fii boo ko envoyé wax ma tuuti ma jàllale. waaw ah, Abdoulaye Diop euh, si moom xam na ma. waaw ah, dëgg la. suba dinaa waaw waaw xaw ma nag ban numéro laay waaye suba dinaa dugg sama addiya. suba da nga joxe sa waaw boo ko joxee xam nga numéro Abdoulaye Diop boo ko ko joxee ñu jot ci. amoon naa ko waaye na ma na ma jox numéro Abdoulaye na ma jox numéro 201 20 37. 501 20 37. waaw 77 201 20 37. 201 20 37. waaw. waaw d'accord ku ñu wax Adja Seyna bu jot joxe na 5000 moom it waaw nee na doomam dina yónnee ma ne ko bu yónnee ma door a wax turam waaw ndax man damaa leer nañ comme ko nañ dëgg bu yónnee daal dinaa ko jàllale fii waaw ki diggee nag damay wax diggee na rek li li lu bëgg waaw sëñ sëñ Modou Fall nee na sëñ Modou Fall ca saalum waaw Touba Fall ah. waaw ah, xaaral defal ndànk cinquante mille waaw. nee na dugal na dix dugal waaw neena dugal dana dugal cinquante mille. waaw sëñ Modou Fall. nee mi ngi dugal quarante mille ah, kon kon dugal na cinq. waaw waaw kooku xam naa ko waaw baax jërëjëf. Ah, bu nu bu nu waaw mbir mi mat léegi tamit mu baax waaw. waaw ah. bu nu dégloon te rek. waaw ndax fi mu ne. Eh, eh, eh, affaire baa ngi nii. allo salaam. maaleykum salaam. allo. waaw moo ngi lay dégg. ñëwal bismillah bismillah ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal waxal. waxal dafa dégg day déglu bul déglu ci télé ba déglul ci sa portable. allo. waaw déglul ci sa portable bismillah bismillah. bismillah. waaw. waaw. bismillah. ah. doon sant bu baax. waaw tabarkàlla. te di leen ziyaare bu baax di ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg ci lool te wér. yàgg ci lool te wér. di leen ñaanal yéen tamit ngeen yàgg ci lool te wér. looy dugal. dugal naa vingt cinq mille waa bu soobee yàlla kay jéem jéem jéem. noo tudd noo tudd. sa numéro. man Dieng Thiam laa tudd. Dieng sa numéro téléphone. waaw. sa numéro téléphone. sa numéro sa téléphone. waaw. sa numéro téléphone numéro bi. waaw. ah. 76. dugal nga di waaw waaw. 77 waaw. 77. waaw waaw waaw. waaw jërëjëf Mbacke. 105. 105. waaw soxna soxna Ndeye Mbacke nee am na lu mu dugal léegi dugg na waaye bu subaa am na lu mu indi bi ma euh, Masaalikal Jinaan ah, waxal àggaleel àggaleel numéro bi 605 waaw bindal 605 92 86 waaw waxaatal bi ci des c'est bind nga ko ñaata ngay dugal. 25000 bind ko ah, foofu. waaw bindal 25000 jërëjëf jërëjëf ah, jërëjëf. continué leen jërëjëf waaw. Ah. allo. waaw. sëñ Modou Fall. lii. waaw. lii lii moo ko sottal. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw bii mooy sama numéro. sëñ bi na nga yàlla. yaa ci jaam. bu baax a baax. man de damaa yor 4000 kese bëgg koo dugal. ci wér numéro laa doon laaj 4000 baax na dugalal. baax waaw bu subaa nga mottali ko ba muy 10 000 rek. waaw bu subaa nga mottali ko ba muy 10 000. waaw sëñ Touba jaral nañu ko. dëgg jar nañu ko. waaw. waaw. ku ñuy wax Ndongo Touré. waaw Ndongo Touré dugal na 2000. waaw waaw. numéro weef bi lan la. numéro weef bi. waaw. Euh, bindal 76. Ah, 76. waaw. waaw. 530 am na it lu gën a gaaw ci yéen jigéen ñi. ku am lamu or. boo indi hmm? ah? mu jël gën a gaawee. waaw ah. ku am or indi. am na ko maam jaara un gramme d'or rek. waaw am or indi. Euh, Modou Fall Modou Fall waaw. dugal na 40 mille yi. am na keneen ku dugal. borom 538 bi dugal na. man la soxna Ami Thiam 5000. soxna Ami Thiam kan la. Missirah Fall. waaw waaye maa la xam Thiam. waaw maa yow de yàgg ngaa bëgg sëñ Fallu lool. lool xam naa sa digg ak sëñ Fallu sëñ Abdou Khadir. waaw. maa bu wér. jërëjëf jërëjëf maa ngi dafa am lu ma waaye maa ngi dugg daal léegi ci ah? waaw waaye maa ngi dugg daal léegi ci réseau jërëjëf jërëjëf baax na ko jërëjëf jërëjëf ngi jégalu dafa am ko wootee léegi daan ne nan bàyyi xel ci ñi nga xam ne dañuy toog seen barab buñ déggee am ku ne dugal naa cinquante mille ñu laaj ko numéro am mu récupérer numéro ba bu xëyee woo ko. waaw jël loola. Eh, lu matal def la. waaw ndax barki démb. ok am na ñu ma doon cinquante mille yónnee ko sama doom. dañ ko jël waaw kay. ku leen bu subaa yéen ñi joxe ku leen laaj. mën naa jël numéro ba xëy woo waaw waaw ah, message la. message la bu subaa jàmm. képp koo xam ne da ngaa bëgg a dugal xaalis. waaw su fekkee dangaa joxe woon sa numéro. waaw waxoon li nga bëgg a joxe. waaw am na koo xam ne mën naa jël numéro bi daal di dem fexe ba soo joxee mu pere xaalis bi. dëgg la. na nga fexe ba boo koy joxee na nga woo ka ngay na nga woote ci numéro yi. waaw dëgg la numéro yi. numéro yi ñu joxe. yi nekk fii ngay woote ba jot nit ba pare comme yooyu ngay gis. waaw wala boog numéro yi ci jotul rek bu la wooyee bul ko wuyu bul wuyu mbaa nga xam sëñ Ablaye Mbaye peex waaw mbaa nga xam sëñ Modou Mbaye waaw mbaa nga xam sëñ Ablaye Diop Bichri mbaa nga xam waaw mbaa nga woo ma sama numéro leer na am na allo allo salaam ah, waaw waaw yàlla yàlla fay la ñu naan yàlla na ngërëmu Serigne Abdou Khadre dal sa kaw. amiin. nga ni dañuy ñaan yàlla na ngërëmu Serigne Abdou Khadre kaw. amiin amiin amiin waaw. waaw. bisimilah bisimilah. ci jotaay. waaw. ëllëg yomal xayaam suñ tubaab buñ séddale bu gëstoo ci wetam. amiin amiin may ñaan nag murid yi. waaw. heure bii banque dafa tëj. Oh. heure waaw. waaye am na nañu yéene yi gàddu ay million dikk ko ci kaw taabal ji léegi wan nit ñi ni sëñ du kenn. yëngu te kenn te du lu du kenn du kenn xam. dëgg la. waaye nag na ngeen ne ñeneen ñeent am na ñoo xam ne bëgg nañoo joxe bu ñu xeeb li ñu yor ndax. xeebaluñu kenn xeebuñu kenn borom junni bi borom dërëm bi lay siyaar. dëgg la xamuñu kenn. lu waayam indil. sëñ Touba de daanaka xeebu ma ginaar ba ci gëléem. looy dugal di ñaan nag. Hmm. jëmm ji nga xam ne si. waaw moo war a bind xasida gi ci or. Hmm. yàlla na ko sëñ Touba aar boppam. amiin amiin. 933 jërëjëf man nag am toogalu xeebu laa nekk Touba Darou. mais da cee dugaloon mais xamul ba xam ne jàll ah. waaw waaw noo noo noo noo ngi ñaan noo ngi ñaan nag it nag. ku woote. nga ni maa ngi dugal nangam. waaw kay. bàyyi waaw waaw. man dugal naa bu yàgg. waaw góor waaw góor waaw Ahmadou Bamba laa ñuy woote ci jërëjëf jërëjëf waaw am na weefa. dë dë dëgg la dëgg la dëgg la. vingt mille. dëgg la. soxna Diarra ma nekk Podor nee na. Euh, mhm. soxna Diarra taxawal soxna Diarra Podor ñaata ngay dugal nga ne. Alô soxna Diarra. 20 mil, 20 mil, d'accord, 20 mil, 20 mil. bëgg alô, weef. allo waaw loolu leer na. ayca ayca soxna Diarra. lii nag. liggéey baa ngi waaw soxna Diarra Jongo waaw bien sûr bind naa ko léegi. 5000 gaa ñaa ngi dugal. waaw ñi ngi dugal. waaw nañ insister rek. liggéey baa ngi nii. xasida la daal. ku ci feeñ ci lu baax. Mm-hmm. dootoo xasida la ku ñuy wax Ndongo Touré dugal na 2000 ku ñuy wax Ibrahima Diagne dugal na 1000 francs ku ñuy wax Ibrahima Kebe dugal na 2000 ku ñuy wax soxna Maguette Ñing ca Grand Médine dugal na 5000 ku ñuy wax soxna Jaara Jong dugal na 5000. Hmm. dëgg la. Euh, sëñ tubaa moo ah. waxoon ne. allo bisimilah bisimilah ñëw ñëw ñëw. salaamaaleykum. bi ñu ngi ziar. yàlla na ko ziar baax. Tuubaa. allo bisimilah. maam Faati soxna maam Faati ba taalibe Sëriñ Faliilu waaw fas nañ ci yéenee dugg ci bis bi waaw ci kàttanu yàlla suñu borom waaw ñaanal suñu maam lu Muntaxa suñu borom yàlla guddal fanam lool te nañ ak wér ci darajee xasida yi ñun nag waañ lañu war lool ci kàttanu yàlla fas nañ yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa waañ waañ lañu war lool waañ togg yóbbu waaw loolu looy dugal looy dugal ñun dañuy togg dañuy togg fii bernde dañuy rey ay ñaari nag fii ci kër gi waaw bernde yóbbu jumaa ja insha allah hmm? yóbbu jumaa ji fan am na am na am na ah, baax na baax na baax na fii dugal nga li nu woote mooy xasida gi ñu war a bindee or lu waaye mën joxe ko ci baax na loolu la ñu wax waaw baax na baax continue leen waaw soxna ma ab sa Thiam nee na na ci sa sa kii alsaan 2500. soxna Mbaye Thiam ah. ah. kon daal xasida gi sëñ Tuba ne woon su ma amoon daay or. bindee ko ko. Mm-hmm. Mm-hmm. France nga nekk ah sëñ Tuba te xasida dong la naa mooy liggéey bi. kon na xasida gi moom faw ñu bindal ko sëñ Tuba. 50 mille te danoo danoo danoo bëgg it. danoo bëgg it ku woote soxna Mbaye. nga ni joxe naa nangam joxe naa nangam. te bañ a woote dugal ca programme bu bopp. waaw kay. salaamaaleykum. maaleykum maa ngi leen di ziar. waaw yàlla yàlla def yoon ziar. ah man de Chérif Aïdara lan may wax. ñuy wax Chérif Aïdara joxe na 50. waaw marché Tilène. waaw jaaykatu or. waaw jaaykatu or. maa ngi ziar ñëpp. waaw. Uh-huh. waaw waxtaan wi neex na am na solo. Uh-huh. waaw sama wéef xool naa ko léegi ñeenti junni nekk na ci dugal naa ko. waaw góor. may wax jaaykatu or bu nekk marché Tilène. waaw. nekk sàndaga nekk ci réew mi yépp maa ngi lay bagaan di la wax ne la murit yi woote nañu te sëñ Muntaxa woote na ma bëgg kenn ku nekk li nga man ci li nga yor ci or nga àttan ko jox ko Sëriñ Tuubaa nga jox ko ko hmm. loolu man maa ngi koy bagaan bépp jaaykatu or man ay dara laa tudd nekk ma ti leen di fa jaay or allo waaw bismillah Chérif wa li ma li ma la koy dëggalal waaw fan yi ci émission yi ñu doon def waaw maa ngi koy yëkkat sëñ Modou Niang waaw Péridor waaw gis naa ko mu joxe ci or bu bari sama xarit nga ko dëgg la waaye ne or sëñ Bamba baa ngi maa la wax loolu de dëgg la lu wér nga wax maa ngi koy woo sama xarit na ñëw fii waaw dëgg la képp rawatina nag jaaykati oor yi dëgg la jaaykati or yi waaw damay wax damay wax ne mhm, mhm. Mhm. tey jii or yi lan woo daa koy bàyyi yéen ko moom de man loolu laa wax dama ne jaaykatu or yi lan woo kon nag képp koo xamante ne jaaykatu or nga. Serigne mm. Touba woo na la. dëgg la. képp kuy ñeeño tamit sa mm. bis ngi nii. Mm. dëgg la. kon nag ne ñëpp ñëw wuy. wax nga dëgg de. ndax xasida ji damaa yaakaar ni or yi la. waaw nga dëgg de waaw dëgg la dëgg la. dëgg la dëgg dëgg la ah. or yi la. kon or yi jàpp naa ni. seen bis a nii seen yëf a ngi nii. dëgg yàlla ci ñëpp defaru waaw. Adja Thiam de muy dégg loolu. Adja Thiam la solution Adja Thiam la solution. sunu xarit waaw. mi ngi nuy dégg de. dëgg la. mu ngi nuy dégg. waaw kuréelu xaalis bu la yor maag ak asaal la ko jox ak jaaykati or yëpp. waaw. ñu ngi nuy dégg. dëgg la man. waaw ñu ngi may wax Pape Thiam. Chérif Aïdara Marté Tilène. waaw dëgg kon nag man woo naa ci ñëpp. dëgg la jiital ci président bi. dëgg la muy Mamadou Niang. Mamadou Niang. Mamadou Niang ak a baax. maa ah. àndoon ak yéen ñu fekk sëñ Mountakha Porokhane. dëgg la lu leer nga wax. ay meeru Thiam. dëgg la. ay meeru maa ngi ko ciy woo. dëgg la. waaw jaaykati or yi wax nga dëgg nañ yow moom yow moom boo waxee rek. Ah. waxal nga jaaykatu or yëpp. waaw jeex na bi ma xoolee lii sama wees vingt mille francs nekk ci dugal naa ko ci ngir sama njaboot. jërëjëf jërëjëf. Mm-hmm. bu subaa tamit dinaa soññi jaaykatu or yëpp. nu dugal jërëjëf jërëjëf te or lan war a indi de. te bëgguma nu indi 18 bëgguma nu indi 14 24 carats laa. nañu indi 24 carats moom lañ koy bindee sax moom lañ koy bindee sax. diyaar naa ñëpp bind waaw. waay waay waay waay waay. daa am lu ci nekk de daa am lu ci nekk de. Ah. lii dafa am benn mbir bu ci nekk. mooy. Ah, ah. mooy di mooy di ci biir sëñ Xaadim waaw waaw waaw waaw. lii de moom sëñ Xaadim Kanji mooy di dix mille francs yi. waaw baax na am xaadim kon nag am xaadim. am xaadim a njëkk mooy ni ñaari junni yaa ngi moo bindoon xaddamanillahu alal xuddaami waaye nag bil mun tala ah kon kon de kon kon de. asalaamaaleykum ah, am na am na benn ci bi damay laaj or bi fu koy joxee. bu dee ci Touba fii mas fii bu subaam. fii fii damay bu dee nekkee fii Touba. bu fekkee yaa ngi Touba. man maa ngi Touba waaw. kan moo fa nekk Touba. Koso Thiam Koso Thiam ma nga fa fan la nekk. waaw Koso fu mu nekkee. fan la nekk ci Touba jox leen ko numéro Koso. ma ne jox ma numéro Koso. jëlal numéro bi numéro baa ngi foofu ci kii bi. wax ak. waaw. waaw waaw. waaw waaw ah négal ma xool ko fi portable. 930. négal ma xool ko sama portable. 930 34 930 34 90 numéro boobu waa Touba képp ku bëgg a joxe suba. waaw lu jëm ci wàllu lépp ñoom ci ñi ko indi. ba ba pare Touba dafa am jaaykati waaw Koso Thiam jaaykati orée la bokk te jaaykati orée la bokk kon sotti na waaw kon ku nekk Touba. allo xam ngeen place Koso Thiam. waaw bismillah yóbbu leen fa or ba. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ziar naa leen. bismillah yàlla na yàlla def yor ziar. alhamdulilah man de bëgg naa ci barkeelu. waaw. waaw allah naa bëgg naa barkeelu trois mille ans. jërëjëf kan ci. allah. ci numéro 500. waaw. waaw baax ci barkeel. waaw barke barkeelu ci numéro boobu yi nga wax. numéro yaa ngi nii nga jàkkaar loolu. waaw yaa ngi jàkkaar loolu. lu ci waaye barkeeloo dana ñëw. soxna sa sëñ Seex Jang Kassoor nee na benn doomam barkeelu na 5000 soxnaam mama ak soxna jaara kooku maa ko tuddoon sax. waaw nee na ku ne muy 10 dana ko envoyé sama wéef. waaw. waa xam nga bi nga xamante ni xadd xaddamani laahu alal xuddaam yi. may ma ma annoncé ñii. waaw. ku ñuy wax Ousseynou Cissé. waaw barkelu na naa Seexuna mm. Seck. waaleykum salaam barkelu na 1980 francs. Mm. Malick Ndiaye 900 francs. Mm. Doudou Diop 2000 francs. Ibrahima Diaw Fall 3000 francs. Mbaye si 2900 la barkeloo. sëñ Abo Fall 5000. Mamadou Saliou ba barkeloo na 5000. Mouhamadou Diallo 5000. Basirou Ndiaye 2000. Abdou Ndiaye 1000 francs. Khadim Mbengue 2000. Matar Loum 300 francs. Adja Mbène Diongue 2000. Mor Diop 1000 francs. bàcc fay 2000 yaayu maam Bamba ca France soxna Mbay Caam cinquante 50000 ñu joxal na ko doomam ak yaayam soxna jaar a Jong 5000 soxna Maguette ñi ngi 5000 ca Grand Médine lu dolli ko waat ma bind waaw. 3000 joxe na 3000 na ko ku ñu wax Moussa Diouf Baye Modou Baye Modou dama doon woote. waaw dafa am kuy wax Abdou Lat Gise. jaaykatu or. ah Lat Gise nag kooku mooy wax ak man nii. nee na ma bu ñuy waxi or. d'accord te ma tudd Cheikh Abdou Lat Gise. ñu tuddee ma Cheikh Abdoulaye Lat bu subaa ma jëf la lu rëy ci or. akaba indi ko guy Masalik ba ñëpp xam ne maa ko defee. su ko waxee dina ko def. Ablaye Mbaye kooku ngay waxal nag. miin na Masalik sama rakk ko baax ñu tegi koo xamante ne Abdoulaye Guissé maa ko may soxna Abdoulaye Guissé ak Adja Lo waaw soxnaam waaw boo waxee def ko léegi nag kooku nag moom <laughs> ah, ah lay nee na bu subaa waaw dana leen fekk guy Masalik waaw Abdoulaye Guissé mii nag hmm. moom lañ fayee Cheikh Abdoulaye daal xam nga yokkum jumaa ji Cheikh Abdoulaye bibliothèque bi Cheikh Abdoulaye <laughs> waturu bi Cheikh Abdoulaye Ata daal bi Cheikh Abdoulaye Ata kër maag moom Cheikh Abdoulaye Ata ah Cheikh Abdoulaye bu jëfee ñëpp xam am na wéy waaw. moo tax di nga ko joxe. jaaykati or yi tey kenn wut ne damaa bëgg ku ne woote. ah soxna maam Boussou Mbacke moom sëriñ Abou moom sëriñ Fallou. Hmm? sama soxna. waaw ah. nee na. Hmm. bu subaa dina joxe ceen or. balak maaram ah, ah maa ko waxal dama ni ñeent yi dal na sëñ Fallou yan ak yan Ablaye ah? Ablaye nag kaay yan ak yan sëñ Fallou maamam boo ko ne noo tudd mu ni laaj ko alxuraan. daama gumba la. saama la waaw. mu ni laaj ko alxuraan 2000 ah. Mm-hmm. foo juddoo mu ni laajal alxuraan kañ nga judd mu ni laajal alxuraan ñeent yi sëñ Fallou la dal. dëgg la boo ko nee noo tudd. saam gumba waaw 2000. kon ni saam gumba ca njaareem joxe na 2000. waaw. allo. asalaamaaleykum. maaleykum Eh, soxna nen ne waaw soxna Ami Thiaw soxna Ami waaw yëmbal yëmbal ay ca waaw maa baax eh, ah, na yàlla jaxate soxna nen ne jaxate taalibi sëñ Maam Mor mu sëñ Fallou taalibi sëñ Maam Mor mu sëñ Fallou yi bagage yi ngeen di gis moo ko fi def saa hmm. bu ñuy def daayira bi euh, émission bi moo fi toog nee dina joxe vingt cinq mille suba. allo allo waata mooy def yooyu waaw. waaw kooku. da leen déglu Ablaye yow la Ablaye sa téléphone baax na. Hmm. Sëñ Keba Touré nee na yónnee na cinq mille. Hmm. Sëñ Keba Touré ñaari Ablaye yii moom seen i téléphone baax nañu. def def ko ci Bintu Ñang Ndar. waaw cinq mille nga bëgg a yónnee def ko ci numéro yooyu ñu affiche. jërëjëf Ñang. xam naa xam naa sa bàyyi mu di Sadio la maaleykum salaam. kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di leen jaar. yàlla yàlla fay la. amul problème. jàll na jàll ñu di rafetlu jotaay bu baax a baax. amul. jàll. di kontaan bu baax ci jotaay bi ñu ay taalibe Cheikh lañu waaye suñu xol sedd na bu baax. maaleykum salaam. ñu bëgg rek barki ci bis bi. maa ngi lay dégg. allo di ci wooy taalibe Cheikh yëpp ñoom it ñu barkil. ah loolu de. dina am lu ñu ci numéro yi incha allahu rabbi.

sëñ Mat Diop sëñ Mat Diop yónnee na deux cent mille am di taalibe maam Thierno Birahim yaakaar Thierno Birahim ñeen fukki junni yam maa waxoon indi na ko ngi noonu ñeen fukki junni yaa ngi nii tegal ci kaw waaw waaw jërëjëf ne ko mu ci xéewal Mat fukki junni yam maa na ko ne woon naa ne yëgal leen ko taalibe borom daal ay salaam allo waaw Modou Diop waaw waaw tey Diop waaw numéro bi am na yow numéro bi. Diop. kooku Modou Ndiome. wala wala wala Alaaji Mbay Peex la. waaw ñu lay dégg wuyu leen ko. Ah. ma waaw bisimilah. d'accord waaw kay. waaw wax leen ak moom. bisimilah bisimilah. dëgg la. jàmm rek. ñoo ngi leen di siyaar lu bare bare. waaw. Hmm. yàlla na yàlla yokk fan yokk seen fan yokk seen wér yokk seen xeer. amiin amiin amiin amiin amiin. waaw man loolu la ko jullit bi nag. Mm-hmm. man waxtaan wi daf maa a rëcc daa am xasida gu ñu war a bind. waaw ko. Ah? am xasida gu sëñ Tuubaa doon bëgg a bind ci njaareem. waaw xasida gi Ahmadu moo xam ne yan la tudd. mu daal ne maam Thierno ndax daay urus am na. waaw mu ne ko Mbàkke soo amee accès gu fi de. mu ne ko suma ma ko amoon de moom laa koy bindee. ñu ne nag ginnaaw mébétam sëñ Tuubaa la moom du fanaan àll mook jumaay Tuubaa jee yem rek loolu moom sëñ Tuubaa ko fi bàyyi xasida yi gën lépp ah mbir maa ngoog man na jeex rek na daal rek loolu lañu bëgg a dindee or waaw moom daal na daal di mat rek doo nga yee ko bëgg a bindal sëñ Tuubaa nag waaw ci numéro bi ma leen wooye. waaw numéro yooyu foo si dugal mu ñëw. waaw baax na wala bu fekkee ma bu fekkee bi mënu ma ko dugal sax dinaa ñëwoon sama bopp wala yóbbu sama doom. jeexal ma ba Masaalikul bu soobee. Masaalik rek. waaw Masaalikul Jinaan. waaw Masaalik. jërëjëf. waaw jërëjëf jërëjëf. kon kon kon ñu eggale rek ëpp xasida axlu xasida ñu ngi leen di woo ñi nga xam ne ndax bu ñu li ñuy def ni xasida la kon axlu xasida ñi nga xam ne ñooy jàng xasida lii seen yëngu man tey heure bi daa doon fekk axlu xasida ñu yor seen i taxi ñu yor ay oto ñu ñëw fii jànqala bi fii axlu xasida ñu ngi woo ñëpp bokk ci xasida rek nga xam ne da ngay jàng xasida daayira yëpp la dama koy tàmbali ci daayira Jeysun bi jëm ci daayira Sénégal waaye mën a nekk ci dégg sama kàddu ñëwal ci Masaalikul Jinaan suba wala nga ñëw fii ci Touba TV axlu xasida nag laay woo ndax lii ku ne xam ne xasida gu ñu bind la te ahlu xasida ñoo jàng xasida ah. kon ñu ngi wax ahlu xasida ñëpp lañ ñëw fii indi xaalis def ko ci liggéey bi mm, mm. euh, ñu woo sëñ Abdou Mbacke Ndaw sëñ Abdou Mbacke Ndaw démb waxtu bii waxtu bii démb rek maa moom ñu ngi waxtaan daa fa demoon rek ndax man Touba laa fanaan léegi laa fa ñëw émission bi indi kon Abdou Ndaw ñu ngi lay woo bu baax mbay jong xam nga ko bu baax mm-hmm. nekk une tarxee nekk jàmbaar lool ci yoon bi mbay jong boo ma déggee ñu ngi lay woo ci liggéey bii di woo ma dikkee ma dikkee moom ku ne xam ne ko ci liggéey Sëñ Tuubaa ñoo ngi koy woo bu baax a baax ci digg ak Pape Diop ak ñëpp ñi nga xam daal ay murid lañu ñu leen di woo ci liggéey bi bismillah allo allo bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ Abdoulaye Diop Bichri laa bëggoon numéro pour dugal li may barkeloo waaw 201 37 77 201 20 37 20 37 waa kay jërëjëf waaw jënd ko ah, maanaam maanaam maanaam jërëjëf sëñ sëñ sëñ Matar ci dugg bi am na solo lool. waaye daa am la ci nekk ci eh, liggéey bii nuy liggéey mooy bés bu set dañ naan sëñ Tubaa amul morom waaye xasida guñ bindee or ci rasulullaay moom ñu xam ne mustaam kenn mosu ko dégg dëgg la tey lay njëkk nga ni yaakaar naa ne buñ ci jógee tey lay mujj dëgg la te gum ndënd neex benn naqari benn du laa xam sañ mu sëñ Muntaxa nee na liggéey bu mu laal suuf moom daal nañ ko bindal sëñ Tuubaa nam bëggoon bismillah lay mareem lay mareem jaay 2000 francs lay mareem jaay waaw d'accord ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg eh, waaw dina dégg ñu kii bee tax alhamdulilah waaw ah, la baax baax dëgg la kay dëgg la kay di leen jàmm dëgg la. waaw ñoo bokk ñu Abdou Khadir sëñ Fall ñu Abdou Khadir mooy sama sëriñ. dëgg la. waaw numéro numéro boobu ngeen joxe waaw. mooy bu. Euh, hmm? waaw nu tudd maam Jaara tudd. waaw maam Jaara Fall waaw waaw dugal nga ca. waaw waaw boobu laa. waaw baax na jërëjëf jàll na. yoy mom ku ca dugal ak ñi ku ca dugal ak ku ca dugal ak jot nañ ca ku ca dugal ak jot nañ ca son maam ma ab sa cham li nga dugal ñewna señ cheikh jang li nga dugal ñewna ka sor ah allo allo ah maaleykum salam allo ah waaw nee na jarul ngeen di confirmer ndax numéro yi baax na baaxul numéro dañ ko saytu ba xamne ne na kuy dugal man nga dugal rek directement te xamne señ tuba mi tax nga def ko gis nako ko ngeen def kon nak wa sama ben jarbat ngaal gu mbay doomu koddu mbay nee suba dana ñëw guy masaalik indi juróom benn junni moog dayiraam salaamaaleykum wala wala jërëjëf mbay jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam bisimilah sëñ bi kooku xaadim njaay xaadim njaay sëriñ mbàkke ndong mbàkke kajoor sëriñ mbàkke ndong mbàkke kajoor ah sëriñ ma ne ah waaw ah. fag fag murit xewee Paa laay mbay maa ngi lay nuyu bu baax. <laughs> maa ngi lay fay di nuyu Serigne Abdoulaye Diop Bichri. Ah. jërëjëf. waa di siyaar bu baax a baax rek. Mm-hmm. <laughs> waaw di ñu ngi fii di wootee ci Touba. Mm-hmm. <laughs> waaye daal yaram daw na. dëgg la de. Mm-hmm. ñun alali Serigne Touba lañ. waaw fi may wax yow nelawuñ. déedéet. Paa Ablaye. waaw. giñ naa ko ci yàlla. yéen seen aajo day faju kenn mënu ci dara. amin amin waaw fi may wax ak yow. Hmm. ñu sëñ Bàmba rek la ñu am. walaay walaay xamal ne waa Mbàkke Kajoor gépp ñu ngi kontaan ci yéen. jërëjëf fa taal ba tàkkee woon. Hmm. yaakaar naa Baye Ablaye yow loolu xam nga lépp. waaw ah, fa laa fekk Cheikh Sidi daal na ngeen xam ne. ba ba ba borom gànnaaw guy mbind. billaay walaay na ngeen xam ne. na ngeen xam ne. Ahmadou Lamine mi tamit laay ko doy ka waaw dëgg la li wér ko wër mooy bismillah guddi tey ji yëngal ngeen yëngal ngeen la ah. waaw ndax li tax ngeen yëngal ko waaw mooy yéen yéenay sëñ Bamba ja waaw te képp ku mu nekk sa xol sa aajo faju waaw mooy mooy xasida gurus dëgg la man de fi ma wax ak yow hmm. bu ma coupé saa ñaq dana dugg si jërëjëf képp koo xam ne ma maa ngi dégg sa yaa ngi dégg sama kàddu dëkk Mbacke Kajoor. loolu rek lañ bëgg. wala wala nga bokk feneen. loolu rek lañ bëgg ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan. loolu rek lañ nga def sa kemt laay kàttan. képp ku bëgg sa aajo faju nag. bàyyi ba nga jóg jóg jot na jërëjëf jërëjëf kontaan nañu bu baax. juróomi junni waa Mbacke Kajoor. xam nga waaw waaw mën ko dugg weesu waaw. Eh, Cheikh Abdoulaye Diop. waaw d'accord d'accord. lii. soxna soxna soxna Ndeye Ndiaye ocaas Ocass fële ca Touba. waaw nee dina dugal sama numéro trente mille. Ndeye Ndiaye Adja Ndeye. moog waa këram ñëpp. dëgg la dëgg la. Ndeye Ndiaye Fallou sopp sëñ Fallou nee na dina dugal mille. kontaan nañ ma sëñ Abdoulaye Diop gis bu baax sama soxna. sëñ Abdoulaye Diop waaw jërëjëf lay koy dégg. nee ko bu bëgg fàtte moo ko def foo ko gisee laa ko def. incha allah wallaay wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf. boo ko nee tur wi rek de mu ne alxuraan ne fadilu laa yuuti man. maa la wax loolu de maa la wax loolu de maa la wax loolu de maa la wax loolu de. salaamaaleykum. maaleykum salaam. man maa ngi lay ziar. yàlla yàlla def yoon ziar. waaw na ngeen def na ngeen defal liggéey bi. sant yàlla bu baax sant yàlla. bisimilah. allo. bisimilah. daa mel dafa coupé dafa wala dafa rëcc. xam naa dafa rëcc boo dem ah dafa dem waaw. xoolal foo dëkk mu ne alxuraan nee na. Mm, mm. lazina amanu wa amilu salihaati tuballum wusul ma. waaw bisimilah. ah de. foo gane àddina mu ne alxuraan nee na wala yadduhu ila daaru salaam. moo kañ la mu ne subhaana lazi asra bi abdihi laylan min al masjid ila al masjid al aqsa rasulullah dañ lay ma ne cëpp dëgg la ay soxna may galas sama sëriñ sama borom loolu la yàlla dogal wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay Abdoul Karim wallaay waaw waaw dëgg la de ci ku baax ku baax allo nee na ñuy dugal ni ñuy ak seen numéro yi waaw léeg-léeg dee leen dugal leen numéro yi waaw ñu mën a jàkkaarloo nun waaw sëñ daam benn affiché kii bi waaye sëñ xaadim ok waaw sëñ Ablaye jaaykati or yi waruñoo nelaw tey de waaw tey de moom tey seen bésa waaw jaaykati or yi tey seen bésa de waru ñoo nelaw de bu ko defee numéro yi boo ci dugal rek baax na allo sëñ Ba si wala laabu xaalis bu koy doyee teglante nii foo rombee kii duwee bu baax bu rafet rek boole ko ci loolu lay jëriñ boo ko xam ko xaalis ne koy doyee teglante nii di xool foo rombee kii bu rafet boole ko sëñ Ba si wala waaw gaynde borom tayif yasar lana murada ablil maala wa fatha wa tayshira wa kamala gis nga gis nga li gis nga gabam ne ki demoon Gabon ne. Hmm. yàlla ci boppam moo ma yombalal xaalis. waaw. waaw ba ki demoon Gabon ne na. Hmm. man mii la yàlla yombalal xaalis. wax na dëgg. moo joxe cinq cent mille francs français. Hmm. bi franc bi demee bay daanu. 1914. joxe quatre cent tirailleurs murit. bàyyi bi ma jur dem na quartier ci la bokk. ndeysaan moo tax moom. léegi nag xasida gaa ngi nii. ah Ahmadou Mouhniyane gis ngeen. waaw mbindum or lii la ñu bëgg mu doon ko. waaw nii nii la danañ doon wane exemplaire bi ñu koy jox. waaw waaw lii nii la ñu bëgg mu doon ko. mu lépp di mbindum or. waaw indi nga nag léegi jàmbaar. sëñ Mbacke soxna Lo. waaw bàyyi sëñ Moustapha. kon borom afi bàyyil xadim. ku ñuy wax Fatou Ndoki ca ca ca ñëw ñoo sasee kër nee na jaari oram a nga fa bu subaa na ko yónnee. suba su ma naa ko na or bi ñëw rek. wallaay wallaay. waaw soxna Ayda moom Serigne Saliou parcelle. waaw nee na mi ngi dugal soixante-quinze mille. sëñ daam ci yow la ko jaarle wala. dëgg la. dina ko dugal dina ko dugal ci numéro yi. dina ko dugal ci numéro yi gaa ngi ñëw de. Ah, waaw euh, euh, fi mu ne nag. waaw Adja Ndeye dugal na moom la mu waxoon 30 mille yaa ngi nii gis naa. dugg dugg na mu ngoog. salaamaaleykum waaleykum salaam. Baye Mbaye Béyam maa ngi ziar. yàlla yaa def yoonu ziar. Baye yaa ngi ci jàmm. sën Cheikh Abdou Khadir. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. jëf di rafetlu jotaay bu baax. Mm-hmm. yàlla dañuy si daje ngërëm ak sëriñ bi. amin si barke Seexul Xadim. amin si barke bu si barke amin kontaan nañ lool. jërëjëf. waaw man nag um, sama addiya laa bëgg a barkeeloo rek. waaw waaw. léegi dama koy jaarale si sëñ ak sëñ ab sëñ ab waaw. day sama wóllare sëriñ te ci laa ko bëggoon a jaarale muy sëriñ Omar Jaxate moom si ñoom sëriñ Jaxate. mën mën na see jaar mën na see jaar. waaw fekkee ne ko Baara Seye moom sëriñ Omar Jaxate moom si ñoom sëriñ Jaxate moo bëgg a jaarale addiyam foofu. waaw. waaw. mën na see jaar. waaw bu ma amee bu ma amee fu ma ko numéro am rek numéro am laa yoroon nag. ah sëñ Assane jox ko sa numéro. Abdoulaye Mbaye. allo jëlal micro jëlal micro 77 408 22 99. allo. 408 waaw waaw moom moom mooy sama numéro bi am orange money ak wave ndax euh, sama numéro bi bi ci suuf nii. 76 euh, bi free money rek la am. waaye comme 408 22 99 bi am na kii euh, képp koo xam ne yaa ngi wax ne da bëgg a jaarale ndax lool day am am na ñoo xam ne rek dañuy wax ne ki ma xam laa bëgg a jaarale. kooku nag 408 22 99 mooy suma numéro bi nga xam ne. waaw 408 22 99 mooy suma numéro bi am orange money am wave. 76 wala 77. 77 waaw. 408 22 99. waaw man la Ba Seyni man su ma ah, kay xam naa la bu baax kay xam naa la bu baax <laughs> maa ngi nuyu si ñoom di ko ñaanal mu yàgg fi tëwër. amiin si waat si Tuubaa bu baax a baax. incha allah ñoo ngi koy ñaanal bu baax kay. Ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf. loolu tudd naa xaadim xaadim Diop waaw. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xaadim Diop bind naa ko. bu ko giñul woon it gëm nañu ko ñun Alaaji Ablaay Mbay sëñ Bamba nee na billaahi lazi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa arakaati wa sakanaati maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ni soxna Bousso Gueye nee na dina joxe ñaari junni soxna Bousso Gueye waaw nañ ko bind waaw fi mu ne nag mhm. du jaaykati or yi dong jigéen ñi denc or te yaakaar sëñ Bamba wut ay kii di ko ci denc bal nga yóbbu ko banque banque baa ngi waaw banque naa sama takkaay bindale nañ ko sëñ Bamba or ah ah ku ko def boo dekkee moom da am woor de te lii la sëñ Tuubaa bëggoon Alaaji Ablaye Mbaye waaw maam Aminta Amar bi Halo. def soror bu mag bi mhm. dafa jël mbolé wurusam Halo. Mhm. ni Halo. Halo. nañ ko jital ci fondation lambal Halo. allo Halo. bu mag Halo. ya gis na ko joxe sonan Sawalo allo allo Sawalo baax ma Halo. Halo. Halo. bismillah Halo. Halo. Ah, ngi tuddu soxna Halo. Halo. Halo. Yëmbal Noor waaw ma ngi rafetlu émission bi bu Halo. Halo. baax waaw Halo. ñu Halo. sama papa yoy tok Halo. waaw waaye nag di beral nuyoo sama ab Ablaye bay Peex dama koo sopp lool ngir Serigne Touba. jërëjëf yàlla yàlla fay na man wax dëgg yàlla plateau bu may seetaan gis ko ci rek dama koy sawar a seetaan. dëgg la. abal naa sama addiya junni léegi ci wér. waaw góor waaw góor kenn mën na 230 bi. 34 hmm. 90. jërëjëf jërëjëf waaw. maa ngi kontaan bu baax a baax a baax. jërëjëf yàlla na yàlla fay la. sama doom ji nga xam ne tuur tànk la amul kii sax waaye tàbbal na téeméer moom. dëgg la jërëjëf. waaw nee na téeméer rek la am tàmbal na ko ñu ngi kontaan wax dëgg yàlla jërëjëf dëgg la yàlla yàlla kontaan dëgg la jar jar na déglu émission bi le maire de Mbacké waaw waaw teg teg say jaaro waaw le maire de Mbacké mm. nee na nee na mi ngi ma bind nii ne ne ne nee na mi ngi ànd ak ñun xam naa nag su fekkee dafa bëgg a dugg maa ngi koy envoyé benn numéro su fekkee dafa bëgg a euh, dugg bu ko defee mën na ci jaar Abdou Mbacke Ndaw waaw sëñ Abdou Mbacke Ndaw waaw maam la ñuy waxtaane ak yéene yu rafet yu bëgg a def sax ci xasida yi nag waaw yaa ngi fa waaw ah. kooku ak it ah, waaw d'accord waaw ni nga xamante ni noonu la def muy Abdou Mbacke Ndaw uh-huh. euh, ñun ñëpp ñu ngi koy béggee ñaata uh-huh. Uh-huh. waaye am na loo xamante ni Ablaye dama bëgg ñu xam ko waaw waaw waaw sëñ sëñ bind mi nga xamante ni lañu ñu déglu moom la ñu war a bind xasida ak ahmadou muhniyeen ci or mm-hmm. ahmadou muhniyeen ñu binde ko or mm-hmm. ngir mottali mm-hmm. bëgg-bëggu sëriñ Touba xamal nag ni yaa ci dugal bi sëriñ Touba naan billahi lazi la ilaha illa huwa waat naa ci yàlla ni hayati samuk dund wa mamaati ak samuk dee wa arakati ak samuk yëngu wa sakanaati ak sama ma maa rasulullahi waaye may maa ngi giñaaleel murid yëpp billahi lazi la ilaha illa huwa hayaati wa mamaati wa arakaati wa sakanaati maa xaadimu rasul kon buñ demee ba yàlla dogal ñoom ñëpp na ñëw masaari kut jinaan fa laay jullee yoor yoor julee laay jullee gee Masaalikul Jinaan ba mu ubbee ba bañ tegee xeer weeg léegi randuwuma mètre fa laay jullee yoor yoor fa laay gee Touba Charlotte waaw ci dina joxe deux cent mille joxaguma ko ne mais dina ko dëgg la dëgg la wax Mamadou Konte Daaru Muxti regroupement la cinquante mille waaw cinquante mille ah, noonu mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. jox ko micro bi maanaam bayit la <coughs> waaw daam jox ko man fi ñu toll nii soxna seem woo léegi mm. nee na joxe na cinquante mille ak 49000 sama tutaang Sëñ Xaadim. 99000 man moom joxe naa ko joxaale na ko sama woyu jigéen. sama woyu góor bi nga xam te ni yàlla def na mu jiitu. yàlla it boole ko ci loolu. waaw ak képp suñu maam yeeg sunu ñëpp rek. ñu boole leen ci. ñëpp dugg lépp nag bay di moom yéen a ëpp na loolu. waaye nag yëgee googu lañ ci am loolu mooy barkeelu bi. jërëjëf. ah daa mel ni 99 nag jig na murid yi. waaw ah. El 99 mooy la sama wulaay na mooy saalihu waaw dëgg la de mooy saalih boo nee saalihu rek tudd nga turu yàlla yëpp walaaw la si laa ilaha illa huwa 99 mm. rahmaanu rahim dëgg la Abdou Khadir Thiam doomu Kamal Silla dëgg wax na dëgg na dëgg waaw nee mu ngi lay nuyu suba dina dugal dafa yorul fi ndax dëgg dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la waaw sëñ Baye Modou. waaw 99. Ablaye mooy lasmaawulaayil usna. juróom-ñeent fukki tur yàlla yi juróom-ñeent. boo nee Saalihu tur yàlla yëpp tudd nga leen. waaw 60 la liif benn lam 30 hayin 8. sëñ Daam waaw monsieur Diagne suñu Daam. soñu ñu mënee rek biñu joxé ki bi seigne Muntaxa rek bu ko fi ñu tejé ko. waaw daal di nak na na xalim Njaay ki tudon dom ji. waaw waaleykum salaam compte sëñ Cheikh Dieng. waaw def na ci dugal na ko. ah Abdou naka def waaw waaw. def na ci def na maanaam doom ji dafa joxe seen. kee joxe bi doomam ji wax maam Jaara jërëjëf jërëjëf. waaw téléphone bee soppi xam nga mu bañ a double écriture. moom Cheikh Dieng taalibe yi xir te. waaw d'accord waxoon naa lu mel ca Touba ci kanam mm. laaj lu ñu man d'accord def fu ñu xam mm. boo xoolee Touba ca kanam fi mu tollu léegi mm. ñoom it danaa leen woo mm-hmm. ci xaside gi waaw ndax Touba ca kanam lépp lu jëm seen Bamba ku ca man Touba ca ah, kanam amul wax nga dëgg de kon waa Touba ca kanam sëñ Abibou sëñ Fallou lu njaay Abo Bousso mm-hmm. tubaarkàlla ñoom it Touba ca kanam danaa leen ci woo mm-hmm. ci liggéey bii ndax ñoom Touba ca kanam bu ñu sañoon mbedd sëñ Bamba yi ñu tëlee ko or kon bu ñuy bindeel sëñ Bamba xasida or ñoom itam daañu ci ñëw ñu ngi leen di woo waaye dañoo bëgg li ñu soxla mu mag tableau baa nga ne bañ koy joxe man ah. ma maa téye noonu tableau bi tableau bee nekk noonu man maa téye noonu tableau bi kon lii moom firnde la ci mi ngi nii table baa ngi noonu. ahmadu ahmadu muxniyan yi ñu bindee or. moom la ñu jox. waaw échantillon baa ngoog échantillon baa nekk noonu. waaw mooy échantillon bi ñu jox sëñ bi mi ngi nii sëñ bi tànnal boppam bii it ne mbind mee ko gënal. waaw ne it façon mbind mee ko dàqal. wax na dëgg. waaw lu am solo la. Cheikh Mamadou Mountakha. Mhm. walu bëñ da ko def dafa mokk te kenn déggul ko. أحمد مهني انتهى آه، لا أمسنا وكان لي بكل سهر وسنة أحمد مهني انتهى على أنسنا وكان لي بكل سهر وسنة قاتبت في البر والبحر وفي عصري والجهر مع نادي الوفي فقلت يا رب الولا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق ما سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب اليوم بسارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يغيم يا ربنا صل صلاة بارية مع سلام بالمنى مصارية على الذي أحتيت مدادي مزمن ما سفى ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن مدادي قد لو ما شاء يا من لو أوجه الإنشاء يا ربنا سل صلاة تهرئ ما سلام رداك قاهر barke Sëñ Abdoulaye Ndiaye dañuy lekk dañuy lekk Sëñ Abdoulaye Ndiaye ah. Sëñ Abdoulaye Ndiaye doomu Baye Moutala Ndiaye la. waaw xam na ko. moom de doon jàmbaar lool Lambaye doon jàmbaar lool sëñ Abdoulaye ma déggee. waaw yow ñoo defee loolu lépp ñu moo ma déggee naka lii liggéey sëñ Tuubaa bi la ci kenn jiitu. liggéey sëñ Tuubaa bi moom mën moom mën naa laa waxal ni. kenn du ko ci mën daa mel na. Maam Mor la. waaw moom xam ne liggéey bu ñëwee moom day ñëw. <laughs> moom nag. Uh-huh. barkala Modou Sarr laa ko tuddee. dëgg la dëgg la. waaw. ñu ma ma ma ma sëñ Mamour ñëwal ni noo tudd kaay kaay may may ko mu ñëw may ko may ko may dem jël. waaw boo ko dugalee nga woo wax ma dugal ko. ma Mamour toogal. waaw boo ci dugal rek baax na boo ko dugal rek woo ma ne ma dugal ko ma jàllale ko. Er waaw waaw. waaw léegi léegi waxtu wi daa waxtu wi day bëgg kii bu ñu xam na ko doon jàmbaar loolu kon ñoo ngi koy woo ci liggéey si tool di woo sëñ Modou Dieng ma nga ca koy woo ci liggéey bi ci woo ñëpp ndax lii liggéey la boo xam ne ñëpp ci war a jàpp gis nga lii warut a toog semaine mm. waru ñoo toog semaine fii te liggéey bi mat parce que problème te heure bi daa waroon fekk mm. xaalis bi ñu jal ko fii mu fekk del mm. ndax am na koo xam ne seen TV la doon def émission di ko fa def benn semaine la ko def 100 millions la laaj. waaw te lépp daa mat parce que borom tuwa 100 millions la foofu noonu yëpp ma tontu la. dana mat bëpp. waaw. ki ki ñuy laajal. muy Serigne Touba yëmut ak kenn. yàlla dogal. te wax naa la ni bu subaa am na luy xew. mat na ba nuppi. barke Serigne Touba. ñun ñu li ci def mooy. Ah. nu déglu. تخول دانيكو بن ولكو سن بن يب جاكارو مو واي ما نبانو بي نيولين بغ بغ سن توبا باغي ني باسكو امنا ني نيو خامو ني فتيرا بي نيك راديو بي واو تبو سوبا واخنا تبو سوبا واخنا لا ني مبير دينا خيو تي مبير مو بو خيو دا نغا ما وو متنا مالوخ لول دي مولود مصطفى ني مت بارك سن واو جير جيف سن مامور سن مامور غيس نغا فيو ني فك ديكو واجال ني ووتي ني لي ويش فاو ني فاو ني نيو ndax da bàkk sëñ Tuubaa taxawaay yooyu a mën a toog ñii bu bu ne bu ne bu ne am na njëriñ waaye bii mm. bii gën a yitte yitte sëñ Tuubaa la ñu wax dëgg la boo xam ne daf ne woon su su amoon daay urus bindee ko ko tey gën a ñooy urus sëñ Tuubaa waaw may duggee waaw di siyaar ñi ci plateau bi ñëpp mm. waaw di am mbégte man seetaanu moom sax télé bi uh-huh. soxna Aïda Sadiou uh-huh. dugal na léegi quatre mille cinq cent ci weef uh-huh. tudd moo ma woo daa fay bi xanaa seetaanoo ko euh, soxna woo ma ma dem xool ndeysaan amatuma jàmm waaye lii xam nga lu may fay sëñ Ablaye sëriñ bi wax nañ ne soxla na ñetti dërëm nga ànd ak maam Thierno di ko wër wax nga bi wax nañ ne soxla na ñetti dërëm mhm. ànd ak yaayam moo mm-hmm. ci numéro maam na waaw sëñ bi danoo wax ne soxla na ñetti dërëm. ànd ak maam Thierno di ko wër. ba dem ci ku nuy wax sëriñ Wajja. Mm-hmm. nee na keroog Wajja dane ko ëwmu ko waaye mbalaanum wajjam ma. Mm-hmm. mbalaanum tëndën. mbalaanum tëndën. sëñ baa ngi ko xemmem. léeg-léeg mu barasiku léeg mu barasiku mu delloo ko mu delloo ko génnee sëñ Tuubaa dane su ma ko joxoon cëy su ma joxoon mbalaan mi mm. bu yow mal xiyaamee Cheikh Ibra la yemal maqaam mm. mbaamu mu yem ak maam Cerno ay karaama waaye ñetti dërëmi sëñ yooyu mm. murit yi ñu ngi wan sëñ Tuubaa ni ko loo soxla dañ ciy dem sànq bàyyi ndongo mbubb daf maa invité Lamp Fall am luñ ma nettali woon ci parce que sëñ boo seetloo da ngay dégg ñu ne Touba mooy deuxième capital man damaa jàpp ne sax mooy première capitale bu sëñ Muntaxa woon lu baax ndakaaru te murit bu moom na fanaan si Touba kon ñu xam ne Touba mooy première capitale te laaj bii nuy laaj lii sëriñ Muntaxa dëgmal ci la aajoo jaam ñëpp di fajoo yàlla nag teel na koo dégg ndax man li ma jàpp mooy sëriñ bi dane laataa may ñaan sunu borom may na ma ba noppi lim ne den dee leen ma ñaan rek moo tax ma koy ñaan dëgg la waaye sëñ Muntaxa taw tey bii yàlla nga ko tàmbalee appel nee na maddali al xusna ah, wa maddali zayat mhm. wali yàqoolu xëëka xab la maddi yadd waaw maanaam yàlla may na ma lu rafet lépp man sëñ Tuuba ba pare di ma dolli bonus buuñaa fu ma toll te su ma ko ñaanee mbir bala may tàllal sama loxo naa Ahmadou Fabal. Baye Dame Ndiaye dane fi may tëjee. ndax dama fi mu damaa gëj jëm. li ko Cheikh Modou Kara Ahmadou Kara Nooré ni di waxee. walaay général. général mi ngi leen di dégg. général sëñ Abdou Samad mi ngi wax naa ni. nañu oo appel bi sëriñ bi moo tax sëñ Modou Kara général. nii waaye maam Mor. sëñ li nga doon wax nii ndax. waaw kii eh, leneen li ma bëgg a wax mooy. Serigne Ablaye Baye dam Ndiaye dane won boo Serigne Touba bax wàññi nga lam mu doon mm-hmm. juróomi téeméer boo la suma ma noppee waxo deug néna dëgg mo meuna jang yang koy xass man 930 yoruma ko sax jërëjëf dal ne mom du mbeur day formé mbeur mm-hmm. biko bax nuyu du ko jox see bo démé daru salam Salaam fu waay bàkkoo di jaay bax ba ñew daru salam xamni Serigne Sidi Mukhtar la gëna bax baax bi ko jàmbaar nuyoo mu jox ko seex Cheikh Ibra Faati mbër nuyu ko mu jox ko Cheikh Ibra Fall kaleen yafal ba nu man lii ku ko boole ci ñii yàq lii te sëñ Ablaay yoonu sëñ Tuubaa yi amut ñett yi amut bu ma doon gor amut bu ma doon géer amut bu ma doon góor gor gu fi def lu jaam jaam bu fi def lu góor mënut sëñ tubaat defal la lu tax nga ami jaam dëgg la dëgg la bu fi def lu géer mënut sëñ tubaat defal la géer ñu lay rek mu am jigéen ju fi def lu góor mënul góor ñëpp wala ne la yaa ne ci kanam kon asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ sëñ Xaadim xam nga waxtu waxtu waa ngi bëgg a jot waaye da eh, da da eh, dafa am sunu ñaari xalifa yoo xam ne ñooy waa kër Cheikh Samba Diarra muy Serigne Moussa Mbaye dafa nelaw moo doon xalifa Cheikh Samba Diarra ca jiwaalo ak xalifa ak rakam Baye Samba te kër Cheikh Samba ah? Diarra ah? ku ne xam ne seen diggante ak Serigne Touba ñoo moo taxoon sax tey ma bëgg a joxe ngant ndax samay goro lañu waaye loolu moo tax ma ñëw waaye di ko jaal njabootu Cheikh Samba Diarra yëpp di ko jaal njaboot sëñ ma tayir Mbay yëpp nga dugal ko fan euh, euh, sëñ saa Mbay xalifa sëñ Samba Diarra ak sëñ Baye Samba rakkam. waaw ah, comme dugal ko ci baax na ci numéro yi waaw baax na. loolu da boo xoolee rek fi Cheikh Samba Diarra jaar ak sëñ Touba bakkan bu tàggoo di waa caafara jeex ci ki ga yàlla si barkama la bi ku faatu yaa fay jëkk a teew bu ñu julee nga defa teew bu teew bu ñu demee nga def tontu kaw laayam nga xam ni sëriñ bi a man fi mu jaar jaara la fi njaboot bi jaare na fi taalibe yi lu nu am sëñ bamba ko moom li nu am sëñ bamba moom ko nag man sama waa kër dinaa leen sas or waaw waaw ah, danaa leen wax ñu génne seen or soxna Binta Diouf maam Ndumbe Xadi Mbay eh, Asu Mbeng danaa leen wax ñoom ñëpp ku ne génne ci sa jox ma ma indil leen foofu laay tëjee jërëjëf Mbay

dëgg la ñu koy woo bu baax a baax liggéey bi eh, ndax moom mën na liggéey Sëñ Tuubaa mën na ci lu nekk mm. kon soxna Oulu Kébé ñu ngi lay woo ci liggéey bii di woo soxna Fama Lo Masalik mm. soxna Fama Lo xam nga ko jàmbaar lool lool lool soxna maa Isa Mbàkke moom kenn waxaale ko soxna maa ah, naa sëñ daam sëñ daam waxtu wi dafa jeex xam naa ne lépp mat na eh, kon dafa mel ni biñ ko ubbee sëñ Muntaxa woon ziar ko ñaanal ko yàlla mu yàgg fi lool te wér ginnaaw ba biñ ko siyaare siyaare waale seex sëñ sëñ jëwrin alaaj Mbàkke Fay eh, moom lañ njëkkoon a woo waaye moom la ñu mujj woo tamit kon day mel ni xam naa ne bu subaak jàmm moom itam xam naa ne dana def dana def mbir waaw kon eh, ma ne ko jëwrin xam naa ne subaa dina def yëf jëwrin suñu alaaj Mbàkke alaaj Fay xam naa ne lii kenn jiitu ko ci ndax mébétam la ak ci plateau bi ak fuñ ko defé ak bañ fa ñëwé keroog Masalik ci koor ga kon nag alhamdulilah rabbil alamin li taxoon ñu wolé leen. ci kàddu daayira bi sant bu wër sëñ Ablaye Mbaye Peex ak sëñ Ablaye Diop Bissiri ak soldaaru sëñ wallaay ndeysaan ndax yéene ji dañ ko yegg ñu té it neew nañ ci kattan té wallahi lii ñu defal mënu ko kon ci kaddu daayir bi yépp wallahi ñu ngi leen di sant té di leen bàyyi borom tuba gis nañ yéene ñu baax ak sëñ Mamour muy ñëw léegi jëf waaw yëf yi moom jëf la ana ana jëwriñ Baye Gueye bàyyi leen ni sëñ Tuubaa rek ci kàddu jëwriñ ci daa mel ni nag ki nga xam ne ki nga xam ne ñu ci boole yooyu sëñ Xaadim ñoo lii nga boole mën nga ko yow doom alhamdulilah boole gi mooy ñëpp dañ fi daje dañuy fekk doom ju baax ki nga xamante ne nattu yàlla laa bëgg mu baax bëggal si laay ne sax laay ne baay waxoon si tool ko maa la bëgg ba lu ma góobee garab ndeysaan ñu ngi wax ni moom sëñ Muntaxa ca Longoor moom liggéey wallaay waaye Baye Ablaye Mbaye moom sëñ Muntaxa joxal kii bi sëñ sëñ Mbaye Guèye mooy jawriñ ji mm. xam naa xalaat bépp nag ci moom mee la déparé mm-hmm. sëñ Mbaye mii mooy jëwriñu liggéey bi nekk états nag jox ko xale boo xam ne ab yaram mate ko ak ak taalibe mate ko waaye nag mu xam sëñ Tuubaa xam ne lii su ko ñurugee rek faw ñëpp danañ ko dégg mu njëkk ko yuxu ba ñëpp dégg ko tey jii kon ñëpp a ngi la ci wàllu si te te nag sëñ Xaadim ñu waajal bisu sëriñ Abdou Xaadir waaw nag na ñëpp waaj waaw nag li maam Thierno Ibrahima dégg ci bisu sëñ Abdou Xaadir ci sëñ Abdou Xaadir képp la ko dégg dëgg la bisub sëñ Abdou Khadir man na lu ne attan na lu ne jar na lu ne faj na lu ne barke sëñ Touba ndeysaan le douze waaw sëñ Abdou Khadir douze août la sëñ Touba taxaw Louga loolu laa a wax la jullee tàkku san départ ko mu ne fa la jullee tàkku san def bu mel ko ndax ku la fi gis ak koo gis kon Pape Diop borom gis-gis dëgg la waaw waaw Pape Diop Ah, ñu ngi koy woo ñu ngi koy woo suñu soppe boobu dëgg la jàmbaar la kon de daal di mel ni euh, jëwriñ kon nga yëkkati kàddu rek bu ko defee ñu ñu daal di ñaan daal di yëkkati jotaay bisimilah ñu déglu ñu déglu sëñ bi waaw ñu ngi nuyu bu baax di seet na nga annoncé ñu teel a ñëw masaal yi waaw ma waaw incha allah bu demee bu fekk naa ñu génn ay bu soobee yàlla ñu ko ñoo ngi sant bu baax suñu xaadim si jotaay bi mel ni wax bi euh, waxtu bi xoj nañu xam naa dañuy tënk rek euh, di fësal ay kàddu yu cant di ko jëmee si suñu jëwrin ak kilifa yu tedd yi euh, daanaka bu ñu tegee cant gi si suñu baay suñu jëwrin suñu alaaj mbay peex daanaka na ko mën a yaatal si jotaay bi yëpp Uh, di len sant bu baax a baax a baax baax uh, liggéey li waral lii moy uh, baña fananal yene Serigne Touba bebetu Serigne Touba motax li taxaw kon ñu ngi wo mouride yep euh di sant bu baax di sant wa Daare Ahmadou mohnen yep nga xamni ba liguey bi tàmbalee ba léegi ñong ko and ak ñom ñu am si ay taxaway ak jéego yu am solo. Euh, kon ñu ngi leen di sant xam naa dañuy euh, wàcc foofu jotaay bi rek di euh, ñaan saa boroom gën ñoo kàttanal gën ñoo dimbali ndax ay ndaw lañu ba li nga xam ni am nañu yéene matale ko si yoon bi sëriñ bi gàttanuñu ba ñu amee ko nu kawee suñ jot ndax sëriñ bi sëriñ Muntaxa loolu la ñu ñaanal ndax dafa ni maa ngi leen ñaanal gis naa makketu oor bii ngeen ma indil te bëgg naa si kontaan naa si euh, maa ngi leen siy ñaanal tawféexu Sëriñ tubaa àddina ak alaaxira euh, beneen bi itam mooy geneen xasida goo xam ni seen kàttan mëne na ko àgg na fa ngeen defee ko nii kon liggéey bi lii moom day doo ko tàmbali rek mm-hmm. waaye waaye waaye des na sa kanam la jëm te euh, leneen dina ci feeñ incha allah te loolu lañu njort kon dañuy wàcce foofu kàddu yi rek di sant bu baax xam naa ñu jox la kàddu gi sëñ Xaadim Ndiaye jërëjëf. sëñ mi bëggoon naa am yu ci wax ci wàllu liggéey beeg euh, xeetu niñ koy liggéey façon beek fànn bi sëñ Alassane laa bëgg a wax waaye daa mel ni daa mel ni waxtu wi. mbaa ñi jotoo bëgg ñëw suba masalik incha allahu bu ñu ñëwee masalikul jinaan looy am boo ko indee boo dikkee da nga fa fekk ñu mën koo jël jox leen ko kon loolu ñu ngi koy ñaan ñëpp ku defee nag di sant comme ah, waaw waaw. Njàmme bee joxe na 1500 Mariama Mbaye 5000 Abdoulaye Wan 2000 Khadim Diop Baye ca dëkk bu ñuy wax euh, Charlotte ca North Carolina ci Amérique cinquante mille francs Penda Cissé ci Njaareem deux mille Amadou Niang dix mille Ndeye Khady Sow cinq mille Basirou Dieng trois mille allo Astou Kébé mille Soxna Kan ca Kaolack cinq mille Daouda Ndiaye cinquante mille Absa Wilane cinq mille waaw Abdou Mbac cinq mille Cheikh Ka ah, cinq mille Ndeye Fatou Dieye neuf mille neuf Sukkay Jaxumpa 1980 Dame Faye 4500 Abdou Touré 10 000 francs Mam Morlo 50 000 Barcelone euh, Abdoulaye kan 10 000 Modou Ndiom 13 000 nee Souba suba bu Je duggee bu ma Bada 1000 Mohamed Mbaw 20 francs ñeenti ñeenti dërëm Ndeye Marème Diagne 2000 Khady 2000 Saliou Seck 2000 000. Aada Silla Koyta 32 655 Baba Seck 1000 Alioune Badara Ndiaye 5000 Cheikh Kane 3000 Khalifa Fall 10000 Mame Balla Diop 1000 Mouhamadou Moustapha Ndiaye 5000 Daouda Ndiaye 1980 Cheikh Ndoye 3170 Modou Sène Diouf 1980 Mamadou Niang Thioune 920 Aliou Gueye 990 Sëñ Saliou Diagne 4950 Moussa Mbeng 1980 Mor Diop 1000 Adja Mbenn Diongu 2000 Matar Loum 300 francs Khadim Mbeng 2000 Abdou Ndiaye 1000 Basirou Ndiaye 2000 Mouhamed Diallo 5000 Mouhamedou Saliou Ba 5000 sëñ Abo Fall 5000 Mbay Si 2900 Ibrahima Diaw Fall 3000 Doudou Diop 2000 Malick Ndiaye 900 Cheikhouna Seck 1980 Ousseynou Cissé 2000 Sam Gumbala 2000 Ibrahima Ngeraan 5000 Makhtar Lay 5000 Cheikh Kébé 3000 Ousmane Ngom 990 Marème Ndiaye Firqa ca Géejawaay 5000 Jili Lum 3000 Ibrahima Fall ca Jandeer 30000 Momar Lo Barcelone cinquante mille euh, Kiné Amar diggé woon na cinq mille dinaa xool ax moom dugal na ko mu déet Adja bu Dione cinq mille Ndongo Touré deux mille Ibrahima Diagne mille Ibrahima Kébé deux mille soxna Maguette Ñing ca Grand Médine cinq mille soxna Jaara Jong cinq mille soxna Mbay Caam dugal na moog yaayam ak doomam yépp cinquante mille Bàcce Fay deux mille ci dolli ko bind ko incha am na solo lool euh, waa kër soxna Mbari Keba hmm. joxe na cinquante mille sërëm bi nekk Amérique soxna Ndey Dieng joxe ñaari junni kon loolu ci compte soxna maam Diarra Fall. waaw Daaru Muxti joxe na ñeent fukki junni. Daaru indi na deux cent mille moom xaarewu ko suba. Ablaye Mbaye Peex Serigne Abdou Karim Samb sama baay nee na loo mën guddi boo xaaree suba waaye def ko biig ngoog bokk kon nag gis nga. kon euh, asalaamaaleykum. Euh, sa sa may soxna Aïda Sadiou. Mm. moom Serigne Saliou nekk fee ca Parcelles Assainies joxe na cent mille jox na ko doomam soxna Fama mu dugal ko ok d'accord jërëjëf euh, jërëjëf xam naa ne sëñ Elsaan xam naa ne yëf yi dana xaw a xat ndax wax dëgg yàlla <laughs> euh, suba daal mooy heure du bilan nangam la waxoon waaye daanaka mbir mi dem na ba ñetti waxtu dem na ba ñetti waxtu euh, xam naa li mu ci bëgg a wax mooy façon fànn liggéey bi ak niñ koy defaree tax ku ne xam na ne kuy jox sëñ Tuubaa doo ko jox lu lu kii la gën a rafet nga koy jox bu dee CRA yi tamit 22 mm-hmm. CRA yaakaar naa lañ koy liggéey liggéey ba gën a baax lañ koy liggéey mm-hmm. euh, tableau bi it sëñ taxaa gisal na ko boppam ba xamal boppam ne bii la bëgg boobu leeral nañ ko euh, mu ngi jàllee ci réseaux sociaux yi te émission bi nii doon na jàll fépp su ko defee kon ñu xam ne lii ab tàmbali la mm-hmm. waaye jataay bi nii dina amaat waaye nag bu ci benn murit naan naa xaar booba suba rek ku ngeen xam rek jaar leen ci moom numéro téléphone yaa nga noonu bind leen ko ci seen kaye denc soo amut sax bu ginnaaw subaa soo amee dugalal bu ginnaawaati subaa boo amee dugalal beneen bi ci des mooy koo xam ne yàlla dogal na nga dem ba mu yàgg nga forne déggoon nañ ni am na ñu koy def Baye Modou Samba Baye Modou Mbaye Samba ngi nii sëñ Ablaye Mbaye peex ngi nii man nag am na ñu wax ñoo xam ne ñi ñu ma so yittewoo la mhm. am na fi ku fi nekk wax na ma ba tàyyi ne man nañ la wax nga wax mhm. wala yaa bàyyi Modou ngeen woo aarona ko mën na fen wax nañ ko fi ba tàyyi ah kooku nag mooy sëtu buur siin waaw kooku nag mooy la borom mooy borom 13 juin. waaw Arouna Arouna moom danañu. day ñëw ba pare dikk nag teg moom. bokkul ak gars lépp lu waay def Serigne Touba rek Arouna. def Arouna nga dana ñëw noonu lañ ma ko waxee loolu bu soobee yàlla ñu ngi koy ñaanal ndax taxawaayam rafet na lool moom Arouna ku kon nag bu soobee yàlla li ma la wax rek suba daal ñoo nga Masaalikul Jinaan. ku ñëw fekk ñu ku ñëw daal fekk ñu fa waaye nag maa ngi seere ni euh, sëñ Xaadim xaside gii mm. bis buñ ko bindee or ba teg ko ci loxo loxol Serigne Mountakha mm. jaratul naan dara lépp aju yëpp ay. waaw ndax ndax day du mel ni comme genre. Ablaye Der entreprise ne mi ngi joxe Ablaye Der waaw li ci des nag mooy suba kon ñu joxante rendez bi foofu rek benn ñaan nag laay ñaan mooy ñëpp waajal màggalu Serigne Abdoul Khadir ndax nag kaay gis nga ku la jëkk ca jëkkante ba wëlbati ko daje ak yow ca daje ba raw na la màggalu Serigne Abdoul Khadir waaye nag buñ ci jógee bu bisu dellu nag. mooy bisu soldaaru sëñ Bamba mooy fan ci caserne Samba bu Diallo te àggee nag ñu xam góor ñi. waaw maanaam bisu xasida bi. dañuy jàng bisu xasida sëñ Muntaxa bi ba noppi. bu jël suba saa ñu màggal màggal ak Cheikh Abdou Khadir Mbacké. waaw soog na ko léemoo ko at mi nag. mu ngoog. mu jignu ba faw nag. faf waaw rek nag. Eh, bu ko defee nag kon xam naa ne eh, sëñ Alsaan. Eh, waaw sëñ Xaadim. waaw ah. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kii rek da koy tënk rek xam naa bu ñu ko tàllalee doo. waaw xam nga euh, dafa am lu ñu fi indi woon loo xam ne dañ cee sant yàlla sant ci Sëñ Tuubaa dëgg la liñ bëggoon euh, xam naa kii bi fàbbi na ma sax ba jaaruma fi ma war a jaar ndax euh, nuyoo dafa baax kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dafa am lu ñu fi indi woon te loolu mooy leeral nit ñi li ñu bëgg a def loolu nag def ñoo amal solo lool xaalis bi am na solo xaalis bi am na solo waaye leeral nit ñi li ñu bëgg a def ba li ñu ñu xam li ñuy def fan lañ koy def ak lu tax ñu koy def dafa am solo nag te mënta ñàkk gis nga li ñu bëgg a def ci tënk tënk bu gën a tënku laa koy waxee mooy jëmmal xasida ak Ahmadou Mourniane ci or ci bëgg-bëgg Serigne Touba bu mu wax ba ñu dégg ko loolu lu ko gën a rëy amut kon kan lañuy jëfal Serigne Touba lan lañ koy jëfal lim gën a bëgg ci kaw suuf mooy tagg yonante bi bam ca gën a fonk nga xam ne bu ñu duggoon ci xasida gi nga xam ne xasida gi Serigne Touba yemalewu koog dara ci yaa rabbana salli salaatan faa'iqa salaatin moo ubbi wax ji nee na na julli fi ci yonante julli goo xam ne kawe bépp julli bees mës julli ci yonante bi te mu yell ñu julli ko ci moom loolu loolu moo tax julli moo tax euh, xaside gi jéggi waaye balaa ngay àgg foofu dafa ne na xasida gi doon ay mbégte gi bànneex ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam na loo xam ne moom xasida gi ngir ngeen xam yéen ñëpp ñuy jëf ngeen xam li tax ngeen di jëf ndax loolu dafa am solo na ngeen xam ne moom Sëriñ Tuubaa mooy wax de ci tarjumaanu xasida gi mu ne xasida la goo xam ne yonente bi munu ko muñ du ca yokkat munu cee yokkat munu cee tàyyi waaye mënta doyloo leneen wëlis moom léegi nag loolu ngay dégg Sëriñ Xaadim yow mi dégg tu arab dafa ne lu yonante mën mënta am te amagul Ahmadu Muxniyan moom mi ngi xaar ñu jox ko ndax nee ne doyalagul waaye nee na bu xesee am ahmadu muxniyan nee na soxlaatul dara lii Sëñ Tuubaa ko wax walaa yumallu walaa yumallu minhu walaa yustaghna anhu abadan nee na ba faw waaw jariñ jërëjëf wax ji léegi léegi xaaratul si xaadim bari waaye euh, waaw léegi sëñ Tuubaa waaw foo foo xoolal dama lay wax rek lu gàtt <laughs> mhm. foo tibb mu neex fépp neex waaye xoolal euh. wallaay wallaay wallaay gis nga dëgglu rek dëgg la euh, nit ñi li leen yitteel mhm. yitteel na leen ba noppi li ñu engagé nii wér na xam nañ ni naxu leen loolu moom wér na moom loolu mu jërëjëf jërëjëf kon kon xal loolu laa bëgg a wax suñu xol dafa sedd xam nga lu tax ah. xam nga lu tax ku am ku am ku la waxal waaw xam nga ku am ku la waxal waxal la loo xam ne yow mënaloo ko sa bopp da koy sant ñun dañuy sant waaye lii ma lay wax nii dafa jaadu nit ñi xam ko ndax nit ñi xam fi ñu jëm message bi moo am solo ndax gis nga gis nga fi ne d'accord xaalis baax na am na solo waaye xaalis bi liggéeyal Sëñ Tuubaa bi symbolique boobu ci bëgg-bëgg Sëñ Tuubaa loolu moo garaaw dégg nga kon kuy jóge kuy joxe sa xaalis nanga xam ne yaa ngi joxe sa xaalis yi lu Sëriñ Tuubaa gërëm ñu dem ci Sëriñ Muntaxaa mu ne ñu taw feexi àddina ak alaxira ngeen ko sa kanam ne nag ma ne ko ndax mën nañu woo mbooloo murit yi ñu tàbbi ci liggéey bi mu ne waaw waaw mel ni lu jarutoon laaj kon na ngeen xam ne Sëriñ Muntaxaa moo leen woo yéen murit yëpp moo leen wax ne leen jëf leen ci liggéey bi Sëriñ Xaadim Njaay tasawuf mi fekkee jotaay ba téye tableau bi jàkkaarloog Sëriñ Muntaxaa di dégg wax ji téye tableau bi Sëriñ Muntaxaa téye tableau bi yóotuwaat ko beneen yoon. lu muy lu yéeme loo xam ne boo xoolee image bi da nga yéemu ci yàlla mi ngi nii. biñ naan ko ñaari ñaari mbind yi waaw. moom moo tànn boobu. moo tànn bële. xoolaat ko xoolaat ko bu baax. dégg nga la co des gis nga euh, liggéey bi euh, comme dañoo am ay ñoo xam dañuy liggéey ci oor dañoo bëggoon leeral loolu waaye xam naa ne beneen yoon nañ ko ah, def buñ ko leeralee dinañu xam ñoom ñiy liggéey ci oor dinañu xam liñ bëgg a def xam ne lu amagul la ndax xasig gi amagul ci or ba noppi waaye dañoo koo bëgg a defee noo xam ne loo xam ne amagul. maanaam li ngay gis ñu koy dessiné yépp ak di ko def ci ci ci gravé yooyu muy buuru Maroc muy buuru Arabie Saoudite lañ amagul lañ bëgg a defar ñun. moo tax budget bi euh, am na sax lu ci nekk mooy de ba mañ tàmbalee dañ ne woon cent millions waaye fi ne budget bi romb na deux cent millions fi may wax ak yow li tax nag mooy dañuy xool la gën a yell ak la gën a rafet ndax Sëñ Tuubaa bi mu julli ci yonent bi dafa ne euh, yaa rabbana salli salaam faiqa kulla salaatin bi raisin laiqa laa iqa googu moom la ñuy dabu ñun dañoo bëgg a xool lu gën a yell ci Sëriñ Tuubaa ñu def ko nga xam ne nu jamonoy doxee rek ñuy doxee noonu waaye na ngeen xam ne budget bi romb na 200 millions kon euh, Sëriñ Ablaye Mbaye Peex jërëjëf Sëriñ Modou Mbaye jërëjëf sëñ sëñ Cuun suma xarit jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi maa ngi sant sëñ Dame mi nekkoon rési waaye suñ gan ñu tedd yi fi ñëwoon Euh, Baye Modou Mbaye Samb ak sëñ Matar Thioune ak sëñ Alsaan Baye géwël euh, Baye Fallou xasida yi waaye sëñ Ablaye Diop Bisri wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant bu baax ndaxte daal euh, ñëpp a ngi lay sant ñëpp a ngi lay gërëm ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa nekkiinu soldaaru Serigne Touba ci waar wi di ko liggéeyal wet gone waaye nag loolu pàggatéef la <laughs> yàlla na yàlla gën a jàppale ci barkeb Serigne Touba ndax ba ma la ko waxee rek maanaam tegu ci dara. dara Baye Modou mii ba ma ko man sax bi mu ñëwee daf maa bet ndax amoon na ngant de am na ngant de waaw wallahi laa si sëñ Ablaye Mbaye mii ba ñu ko waxee noonu kon nag sëñ jërëjëf sëñ Tuubaa moom da ngay sekkare yow moom da ngay da ngaa nax nit ñi sëñ sëñ sëñ sëñ mi ba ko waxee daf ne maa ngi Tuubaa ci bisu sëñ Muntaxaa waaye danaa ñëw maa nag sëñ Matar kon nag ñu gërëm bu baax di sant techniciens yi jekk baylaat moo nekk noonu yor lu ñuul li ngeen di ko séen jekk baylaat waaw waaye sëñ sëñ sama sama doom jële doomi sëñ Mbàkke male doomi sëñ Mbàkke Sileme maa ngi koy nuyu bu baax di ko yóbbante yaayam ci soxna waalo euh, maa ngi koy nuyu baax mu ànd ak jawrin sëñ Bay Géey ak euh, sëñ Ousmane Diouf si mataar ci ñu ngi lay gërëm bu baax ci daay jëw sin njàng mi taxaw rafet na waaw ginnaaw loolu di gërëm Baye Cheikh Balla Samb ndax it nag wax dëgg liggéey bi ci ñoom la jaar ak sëñ Jibi Ndaw ak euh, sëñ Daam mi nga xam ne boobu ba nëgëni mi ngi ci daw ak soxna Mbaye Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm euh, day mel ni kon sëñ Fàllu suñ Fàllu aaw ñu ngi lay gërëm soxna maam Jaara moom ngeen gis soxna la jigéen la waaye du nopp lu guddi nopp lu bëccëg fu ngeen dem ma nga fa seetlu naa ne ba ma ba xamee mbooloo meeg léegi fu ñu jëm ma nga fa macha allah sawar lool soxna nee na jaxate ñu ngi koy gërëm bu baax ndax nam daan def defati na ko yal na leen yàlla jàppale ñu yóbbanti néew si mu jaax waaw suba suba ña nga masaalikul jinaan képp ku waxoon ne da nga joxe suba ak jàmm boo jee di nga joxe mboolem li ñu envoyé danañ ko retiré mhm. dajale ko euh, natt ko ba xam li nga xam ne yàlla dogal na dugal nañ ko ci waaye ñu xam ne li benn la man mhm. naam buñ demee Touba dana fa am barab man naam tamit euh, tabarkalla feneen fu man di doon waaw waaw fenn fu nekk rek dana fa ne ba liñ bëgg a liggéey sëñ tubaa mat ndax lii kéemtaan la ci kéemtaani sëñ tubaa la mooy bind xasida guñ bind or moom amagut sëñ tubaa koy njëkkaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf